mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak euh, Sénégal 7 TV ñu am mbégte dellu soit ak yéen ci seen euh, émission boulevard du net boulevard du net euh, bi nga xam ne Sénégal set moo leen koy dégtal suba su ne. Euh, daal di rek euh, ëmb ay rubrique yu bëri euh, ñeel wàllu information ak yenn aspect yoo xam ne bien sûr dinañ ci ñëw ak yéen li ñeel actualité bi ak lépp loo xam ne rek intéressé na leen si wàllu information donc tey nag di àllarba fukki fan ci weeru juin atum 2020 ñu amaan mbégte jànnoo euh, ak euh, yéen ngir rek euh, daal di sekk ak yéen jotaay bi ni ko Sénégal set di defee saa su ne di leen jaajëfal lu baax ci lu beeg fidélité bi alors tey nag ci àllarba gi niñ ko taamoo di defee ci boulevard du net di ngeen am information yi nga xam ne moo ñeel Covid 19 muy actu Covid également actu Covid di ngeen fa am point bu ministère de la santé et de laction action sociale ak yenn ci information yoo xam ne ça concerne. gestion euh, Covid 19 bi ak lépp lu aju ci information yi nga xam ne euh, ñoo ñeel euh, wàllu Covid 19 beeg crise beeg lu ci aju bu loolu weesoo dina ñu dam également dal di faram-fàcce news du net dañ ci ànd ak Mouhamed Sissoko ñu jaaree fa rek nuyoo ko dalal ko Mouhamed ñu ngi lay nuyu. Abdou Hadj maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu de Sénégal 7 TV ak les. followers de Sénégal 7. Mm-hmm. di leen nuyu tey seen rubrique euh, les news du net. Mm-hmm. ñu ngi ci am ñeenti poñ benn bi ci dina wax ci gestion du littoral. Mm-hmm. wax ji fi bi fi Bart maire Barthélémy Dias yëkkati mu am ay wax ak i tontu démb mu def vidéo pour tontu le sous-préfet Djibi Diallo le sous-préfet de Dakar Plateau beneen deuxième point bi benn polémique bu ndaw bu soulever aussi annonce retrait retrait euh, retraitu basketteuse bi di Astou Traoré ba nga xamante ni dafa am ku annoncé retraite mu génn ne moom moo war a annoncé boppam retraite am euh, troisième point bi éphéméride e lay nekk mu nekk ba nga xamante ni dañuy fàttaliku génn àdduna kii di euh, Lamine Gueye nekkoon fi président assemblée nationale nekk fi premier avocat noir nekk fi am fi ay nombay tànk yu bëri mu génnoon àdduna la di juin 1968 yooyu la ñuy waxtaanee Abdou Khadir. d' accord Mouhamed Cissokho xam naa dinañ la jëlaat euh, ci diirub euh, jotaay bi bu ñu euh, paree ci news di net dañu dem xool yi soo Socé Ndiaye ci les articles du jour Socé Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Abdou Khadir. Socé bàyyil tardé. waaw gis nga ne c' est que nag Sénégal aussi li ñu fi war a wax bëri na de. gis nga embouteillage bi ci réew mi. dafa mel ne bañ ñu libéré yi ba léegi yooyu dafa <laughs> commencé gën a xat kon mel ni activités yi tàmbalewaat na waaw mel na nag fi mu toll nii sénégalais yi nag ñu ngi jógaat bu baax d' accord lu ñu mën a am tey ci les articles articles du jour xam naa nañ faram-fàcce loolu yëpp ci di ci jotaay bi waaw tey ñeenti article la leen jëlal euh, bu les échos bi incha allah dinañu wax ci li nga xamante ne moom moo di rupture contrat Sénélec ak Akilee mhm. bi mu amee li ci Macky Sall wax syndicats yi dañoo jógaat di ñaawlu yeneen contrat yoo xam ne am na biir Mm-hmm. waaw ñoom ñaawlu nañ bu ci mel ne contrat bi dox diggante Senelec ak Excelec mm-hmm. loolu incha allah dinañ ko faram-fàccee ci journal Les Échos euh, dinañ wax bi nga xam ne génn na tey ci laas muy acteur des yi nga xam ne mooy suñu naataango yi ndax ñoom mosuñoo d'accord ci ci maison de la presse nañ ko jëlee jox ko euh, suñu naataango bii di Bara Ndiaye ndax ñoom jàpp nañu ne ñoom les acteurs. Mm-hmm. ñoo war a gérer maison de bi seen bopp donc loolu aussi dinañu ko faram-fàccee euh, dinañu wax aussi ci journal bi nga xamante ne. Euh, moom moo di l'observateur ndax Luc Nicolaï moom xam nga Bougazelli moom dañ ko may liberté provisoire Luc Nicolaï nag leen loolu jaaduwul boo tax daal mu entamé li nga xamante ne moom moo di grève de la faim euh, jeexale nag ak li nga xamante ne moo di mbirum euh, Lamine Diack ak doomam ji di Pape Massata Diack Libération def ci as article bu yaatu boo xamante ne dafa indiwaat daal échange par SMS yoo xamante ne doxoon na diggante avocat bi nga xamante ne euh, moom moo di Habib ak ki nga xamante ne moom moo di. Pape Massata Diack loolu incha allah dinañ ko faram-fàccee ci seen biir rubrique les articles du jour. jaajëf kon xam naa dinañu ñëwaat ci biir euh, jotaay bi daal di faram-fàccee loolu yëpp dinañu am également euh, reportage bi dafay concerner euh, suñu mbokk géwél yi nga xam ne dañu doon amal benn doxu ñaxtu toggaanu ñaxtu bu ñu mënee wax sax ci loolu sax suñu invité également ci loolu la ñuy daal di addu wax rek ci contribution culture ci lutte contre le Covid 19 alors bàkk bi bu jeexee rek ñu daal di ñëw ci actu Covid. ni leen ko waxee woon mbokk yi ñu am mbekte bu baax daal di ñëwaat ak yenn ci seen émission boulevard du net ci euh, seen rubrique bu njëkk nag di actu Covid ñuy ci faram-fàccee information yi ñeel Covid 19 daal di koy tàmbale balaa rek euh, point bu ministère de la santé et de l'action sociale ñu tàmbale kook li nga xam ne mooy bilan bi ñu jotoon am démb ci talaate gi euh, ci talaate gi euh, juróom ñeenti fan ci weeru juin atum 2020 euh, jot nañu def démb nag lu toll si junni ak ñeenti téeméer ak ñaar ci ay test yoo xam ne juróom-ñett fukk yi ak juróom-ñeent ñoo positif ñu am juróom-ñaar fukk ak benn ci ay cas contact benn cas importé ak fukki cas communautaire ak juróom-ñaar muy 17 cas communautaire démb am nañu également lu toll ci euh, ñaar fukk euh, ñaari euh, téeméer ak fukk muy 110 patients yoo xam ne faj nañu leen ba ñu wér douze cas grave ak junni ak juróom-benni téeméer ak juróom fukk ak ñeent yoo xam ne ñu ngi leen di prendre en charge ci différents centres de traitement yi muy 1654 patients sous traitement. actuellement nag Sénégal moo ngi am lu toll si euh, ñeenti junne ak juróomi téeméer ak fukk ak juróom benn ci ay euh, cas yoo xam ne déclaré nañ leen positif depuis le 2 mars bi feebar bi duggee ci biir réew mi donc loolu mooy bilan bi bu loolu weesoo ci lu ñeel wàllu information euh, dañ koy tàmbalee ak Euh, OMS muy organisation mondial de la santé di kuréel gi nga xam ne euh, moo yore wàllu wér yaram ci àddina bi moom daal dinay xam ne euh, benn mbir ci cas asymptomatique yi mooy ñi nga xam ne dañu amee feebaru coronavirus bi tey mandarga yi di feeñ seen yaram bu njëkk wala bokk li ñu taamoo di bàyyi xel mooy cas asymptomatique yi généralement ñooy gën a lawal virus bi gën a lawal feebar bi gën a lawal wallaate bi waaye OMS daal dina xam ne ne Euh, ñi nga xam ne ñooy cas asymptomatiques yi ñoom euh, dañuy wàlle feebar bi ci lu néew maanaam wàllaate bi ñuy wàllaate nekkul loo xam ne lu am doole la euh, peut-être bien hypothèse la war a doon waaye lu ñu war a saytu la ci fan yi di ñëw bu loolu weesoo lu ñeel wàllu traitement bi fii ci Sénégal ak wàllu hydroxychloroquine mooy molécule bi nga xam ne moom la ñuy daal di utiliser ci protocole de traitement bi ci Covid ci malade Covid 19 yi donc euh, euh, dañu ànd ci ak euh, l'observateur moom daal dina ñëwaat largement suñu natango yi ñëw largement ci anam gi nga xam ne noonu la ñuy fexe rek ba daal di valider protocole boobee nga xam ne ñu ngi ko rek daal di kal ci chloroquine bi nga xam ni euh, moom la ñuy fajee jamono ji ñi nga xam ne ñoo feebar ci euh, Covid 19 ci euh, ci Sénégal donc loolu ñu nga amoon fukk ak juróom-benn ci ay professionnels de différentes spécialités yoo xam ne ñoo ko sekkoon ak directrice de la santé publique ñoo jot am waxtaan boobu ba tax ñu jo mujj ko dal di valider waaye nag direction de la pharmacie ah et de la pharmacie nationale de la approvisionnement moom daal dina xam ne ne stock yi c'est limité maanaam li ñuy dencandi ci wàllu chloro chloroquine dafa dafa limité euh, ci hydroxychloroquine sax la wax ak azithromycine ndax xam ngeen ne professeur Moussa Seydi xamle woon na ni association hydroxychloroquine ak azithromycine mooy gën a efficace ngir gën a euh, prendre en charge ñi nga xam ne euh, ñooy ñoo amee feebar bi maanaam paj bi ñu leen di paj mooy gën a gaaw ci diirub juróom ñeenti fan waaye pharmacie nationale d'approvisionnement moom dafa rek xam ne xam le ni chloroquine boobu. boobu wala azithromycine boobu jamono ji liñ ci am ci ay stock taxu koo bëri ba tax ñoom ñuy préconiser ñu daal di rek tënku ci euh, chloroquine boobu nga xam ne quand am na ay limites bu ñu sukkandikoo ci professeur Moussa Seydi ndax la muy faj dans une certaine mesure il faut que ñu def association d'hydroxychloroquine ak azithromycine pour que euh, mbir mi daal di am efficacité ci maladie ba tax li nga xam ne mooy wér yaram bi daal di gaaw bu loolu weesoo beneen euh, médicament boo xam ne médicament traditionnel la jotoon nañ ko fi wax ci weer yu ñu weesu muy Covid Organix bi di médicament bi nga xam ne c'est à base d'artémisia te réew Madagascar rawatina njiitu réew ma doon noon ko promouvoir ko utiliser ndax xamle woon na ni euh, day faj feebaru Covid 19 ba da koy sax euh, prévenir looloo taxoon rek ba ñu euh, taxawaloon benn comité comité scientifique bi nga xam ne professeur da Ndiaye ci la bokkoon ba ñu jotoon a def seen protocole ba rédiger ko daal di koy jébbal direction. direction de la pharmacie et du médicament moom moom nga xam ne moo waroon a valider mbir mi waaye fi mu toll ba léegi nee nañu mu ngi ci euh, saytu gi waaye euh, DPM di direction bi moom euh, suñu naataango yi jot nañ ko jot ba sonn waaye antuwul donc foofu c'est sans sans réponse donc ñoom ñu ngi leen di xaarandi par rapport ak loolee nga xam ne mooy mbirum artémisia bi te jamono ji ñu jàpp ne wala bokkuñu nekk ci essai yi nga xam ne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 de 10,2 pour cent 10,2 pour cent les cas positifs sont répartis comme suit 109 cas contacts suivis par nos services 15 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mbao 4 Guédiawaye 2 Pikine 1 Maristes 1 Yeumbeul 1 Grand Yoff 1 Dieuppeul 1 Yarax Ziguinchor et Touba 2. 76 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs et guéris. 18 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 4640 cas ont été déclarés positifs, dont 2885 guéris, 52 décédés et donc 1702 sous traitement. le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à se mobiliser davantage au sein des communauté pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. asalaamaaleykum askan wi mu leen di jottali ci nga xamante ne suñu dëkk Sénégal ci la toll ci mbas mi ñuy wax Covid 19 ci junni ak ñaar téeméer ak juróomi test yi nga xamante ne def nañu ko. téeméer ak ñaar fukk ak ñaar dellusi nañu ànd ak doomu jàngoro bi ci yooyu téeméer ak juróom-ñeent moom lañuy wax contact maanaam mooy yi nga xamante ne suñu service yi bérébu liggéeyukaay yi ñu ngi leen di topp te leen di saytu fukk ak juróom nag am nañ ko tey ci cas communautaire ñu ngi tëdd ci diwaan yi mbaaw am na 4 géejawaay am na 2 ma dellusiwaat si olof mbaaw am na ñeent géejawaay am na ñaar Pikine am na benn Maris am na benn Yëmbal am na benn Grand Yoff am na benn Jëppal am na benn Yaraax am na benn yooyu ma lim nag ñëpp ñu ngi fii ci diwaanu Ndakaar bi fële sa Ziguinchor am nañu benn ca Touba am nañu ñaar juróom-ñaar fukk ak juróom-benn am nañ ko tey ci ñi nga xamante ne bi ñu leen saytoo gisatuñ ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu am nañu nag fukk ak juróom-ñetti cas mooy ñi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci bërëbu sawetaas yi maanaam mooy service réanimation ñeneen malade yi nga xamante ne ñu ngi tëdd hôpital seen yaram mi ngi ànd ak tan 2 mars ba léegi ñu fàttali ne bi euh, at mi amee ñaari fan ci mois de mars ba léegi nga xam ne mbas mi ci la dugg fii ci Sénégal ci suñu dëkk ñu ngi toll si ñeenti junni ak juróom-benn téeméer ak ñeent fukki cas yoo xamante ne. ànd nañu ak doomu jàngolo ji ci yooyu ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom wër nañu sëtuñ ci ñoom doomu jàngoro ji juróom fukk ak ñaar làkk nañu mooy génn nañu àddina ñi nga xamante tey ñoo toog ñu leen di faj ñu ngi toll ci junni ak juróom-ñaar téeméer ak ñaar ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi doolee ci di ñaax askan wi ngir ñu topp tegtal yi nga xamante ne bu ñu ko defee mbas mii ñuy wax Covid 19 dina génn si suñu dëkk Sénégal ñu ngi leen di gërëm leen di sant wasalaam. voilà mu nekkoon euh, communiqué bu ministère de la santé de l'action sociale ci seen rubrique euh, actu Covid euh, docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye di directrice de la santé publique moo ñu defal point bi tey bu ñu sukkandikoo ci moom kon def nañu tey lu toll ci junni ak ñaari téeméer ak juróom ci ay tests muy 1205 tests. ci 1205 tests yooyu ñu am ci téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay cas positifs muy 124 cas positifs ci 124 cas positifs yooyu bu ñu ko xayma euh, dafay toll euh, ci téeméer boo jël fukk yu toftalu ñaar muy un taux de positivité bu 10 virgule 2 pour cent euh, ci téeméer ak ñaar fukk ak ñeenti cas positifs yooyu am nañ ci téeméer ak juróom-ñeenti cas contact muy 109 cas contact ak quinze cas communautaires fukki cas communautaire ak juróom yoo xam ne eh, gis nañ fa mbaaw eh, diwaan bu mbaaw di gis nañ fa ñeent géejawaay ñu gis fa ñaar eh, diwaan bu pikin Mariste Yaraax Jëppal Yëmbal Grand Yoff ñu gis fa fu nekk benn Ziguinchor ñu gis fa benn tuubaay itam ñu gis fa ñaar donc loolu mooy cas communautaire yi nga xam ne am nañu ko tey nag am nañ également lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom benn ci ay Euh, patients yoo xam ne faj nañu leen ba ñu wér euh, maanaam 76 guéris ñu am 18 cas graves yoo xam ne actuellement ñu ngi leen di prendre en charge ci différents centres de réanim euh, service de réanimation yi bu loolu weesoo bi feebar bi duggee ci réew mi ba léegi Sénégal daal di comptabiliser lu toll ci ñeenti junni ak juróom benn téeméer ak ñeent fukk ci ay cas positifs muy 6 000 muy 4 600 quarante cas positifs ci loolu ñu am ñaari junne ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom muy 2885 guéris ak juróom fukk ak ñaar ci ay patients yoo xam ne génn nañu àddina fi ñu toll nag ci euh, centre de traitement yi ñu ngi fi am lu toll si junni ak juróom-ñaari téeméer ak ñaar ci ay patients yoo xam ne ñu ngi leen di prendre en charge maanaam ñu ngi leen di saytu di leen euh, toppatoo pour faj leen ba ñu wér donc loolu mooy bilan bi nga xam ne euh, ministère de la santé de l'action sociale daal di koy euh, dal dina koy dégtal tey ñu daal di rek jàll ci commentaire bi Sissoko lu ñu mën a jàpp ci bilan bilan tey bi. waaw Abdou Khadre bilan tey bi comme chaque fois. Mm-hmm. booy seet on presque. les mêmes les mêmes nombres différence yi du gànde du du du bëri trop donc bon on, le le plateau bu professeur Seydi doon wax mhm. ça sa ça confirme de plus en plus mais j'attire l'attention sur les cas communautaires aussi démb waxoon naa ko bi xoolal tey fan moo am cas communautaire yi tout tout le temps Dakar la Ziguinchor euh, Touba toujours Dakar Touba day bokk chaque fois et à Dakar fan moo am mbaaw Pikine Guédiawaay yëmbal banlieue bi eh, promiscuité bi xam nañ nu mu amee si foofu donc mu ngi noonu daal mi ngi mi ngi noonu et il faut combattre continuer à combattre le, la maladie parce que aussi il faut pas gars yi baisser les il faut respecter les gestes barrières il faut se laver les mains il faut il faut li ñu digle woon ci tàmbale ba te tey la gën a war tey la gën a war faut pas ñu bàyyi suñu loxo nañ continuer liggéey bi nañ continuer xeex bi et je pense que ñi liggéey ñi faj faj mi ñu ngi ci def liggéey bu bu bu jéggi dayo donc am nañ yaakaar ni bu ñu continuer ñun ñëpp jàppale parce que li ci des nag askan wi la nag askan wi la bu jëlee suñu responsabilité ñun askan wi fii weer wala ñaari weer mbas mi bu demul carrément dina wàññeeku ba bu baax a baax a baax. d'accord alors euh, ci ci loolu am nañu également lu toll ci euh, fukki cas grave ak juróom-ñett cas grave yi également yokku na donc bu ñu nee cas grave rek euh, y a un pronostic boo xam ne dañ koy def si ñi nga xam ne peut-être mën nañu am jafe-jafe après par rapport ak feebar bi nu muy mën a faagaagale seen système immunitaire foofu aussi lu jar a bàyyi xel la. surtout que boo xoolee audi bi cas grave yu ñu amoon les les premiers décès yu ñu am. moo nekkoon cas grave yi cas grave yu ñu njëkk am yépp dañu dañu décédé après certainement après les gens ont ont, le tir ils ont ils ont autre chose mais quand nañu moytu cas grave beneen li tax ñu war ko moytu mooy mhm. est-ce que suñu ent suñu suñu suñu hôpitaux yi am nañ assez de place pour jël par exemple plus de mille personnes yu war a nekk en réanimation mhm. nañ moytu yooyu nañ nañ nañ ci bàyyi xel donc revenir sur le fait que ni xeex bi médecin yi pare nañ ci pour man li ñuy def ñu ngi koy def depuis boobu tey teggiwuñu seen tànk li ci des mooy askan bi c'est de la sensibilisation moo ci des il faut qu'on continue à sensibiliser il faut que nit ñi xam ni xeex bi ku ci nekk yow yaay docteur saydi il faut ñu jàpp loolu professeur Seydi ku ci nekk man man maay professeur Seydi naa lim ma digal yëpp su ma demee naa ko def naa ko digal ñëpp c'est comme ça qu'on pourra je pense xeex jàngoro ji ba wàññi dooleem. d'accord je pense que ça c'est ce qu'on appelle li ñu wax euh, approche communautaire maanaam communauté bi askan wi ku ci ne ci sa ci sa wàll nga am euh, waar boo ci boo ci bay ba tax mbir mi daal di dellu gannaaw mais euh, Sissoko dama gis leen lu xaw a curieux maanaam leen lu xaw a lu xaw a loo xam ne daal. tey na tey na xel quoi. Mhm. tey na xel par rapport ak OMS OMS sànq maa ngi wax ci xibaar yi ne euh, ci actu Covid bi ñu nekk nii ba léegi ne OMS dafa wax ne ñi nga xam ne ñooy cas communautaire yi li ñuy wàlle seen taux de seen force de contagion tax koo am doole trop. maanaam ñoom tuuti la ñu wàllaate contrairement ak li nga xam ne moom la scientifique yi jàpp ne cas comme euh, ñi nga xam ne ñooy cas asymptomatique yi dañuy wàllaate et mais nan la ñu mën a gisee ni euh, cas cas asymptomatique yi dañuy wàllaate très peu alors que ñuy gis ne bu ñu xoolee Sénégal bi nga xam ne ñu ngi koy bàyyi xel saa su ne cas communautaire yi dañu gën di bëri te duñu xam fu ñu koy jëlee. bon loolu xaw c'est vrai hein l'avis de de l'OMS de l'organisation mondiale de la santé wante xam nga dans dans le cadre de la gestion de la Covid-19 de cette pandémie de la Covid-19 OMS dafa perdre beaucoup de crédit. dafa perdre beaucoup de crédit de ce fait man j'attends plus. par exemple ku mel nii des professeurs des des des professeurs comme professeur Raoult mu wax ma ma ma ma gën a jël en compte wala même professeur Seydi mu wax ma ma gën a jël en compte. gëmuma gëmuma leen parce que aussi xam nga nit bu perdre crédit ci benn ci benn ci benn combat euh, mun na utaat beneen kii parce que mënuñu commencer ñu am benn solution. Mm-hmm. pour faj benn feebar yow nga ñëw des gens yoo xamante ni qui ont été financés par des lobbies pharmaceutiques génnee benn kii rek yow ci benn étude nga nga nga nga supprimer l'utilisation de de la chloroquine fu ñu ko suspendre ko xam nga ñu fàttali ne daal dinañ koy remettre euh, nga nga ci dem ba ci biir ñi ko defoon ñi ko publié woon ne ñii kat dañ ma induire en erreur mm-hmm. dañ ma induire en erreur yow nga dellu si après tu viens tu nous dis te ñun xam na dañu yàgg a wax ni ñooñu noonu les malades euh, asymptomatiques ñooñu ils constituent un danger mhm. ils constituent un danger parce que aussi man dama gëm ni du ma médecin xam dama gëm ni mode de transmission malade bi maladie bi euh, nii la ko ku asymptomatique di wàllee noonu la ko keneen ki di wàllee ah mhm. man loolu laa gëm loolu lañ ma wax aussi ñi ma ko wax je crois plus en en eux mooy ñoom docteur Seydi ñoom docteur Bousso que li euh, l' avis de l'OMS sincèrement parlant. d' accord donc démarche OMS e depuis apparition virus bi si Chine je pense que loolu moo tax ak. Euh, avis yi nga xam ne avis yu euh, flexible yi mu fi am par rapport ak xeex bi et tout sax donc looloo waral jamono ji ni nga ko waxee mu am crédibilité boo xam ne daal na koy dal di koy ñàkk xam naa ne liggéey bu rëy lay doon en terme de communication en terme de de de réforme pour que ñoom ñu mën a teguwaat ci yoon bu ñu teg woon ak crédibilité bi nga xam ne euh, jotoon nañ ko am amaana sax. moo suñu ko am mais peut-être Covid 19 ni ñu koy faral di waxee dafa bëri lu mu. suuli dafa révélé dafa révélé beaucoup de carence yi nekkoon en en latence nekkoon ci suuf kenn gisu ko wala kenn waxu ko mais Covid 19 bi daf ko révélé. loolu loolu loolu dafa tey OMS bokk na ci carence yooyu. Mm-hmm. Mhm. donc euh, euh, mu ngi noonu donc loolu mooy euh, bilan bi nga xam ni ministère de la santé de l' action sociale daal dinañu koy dégtal ñu fàttali leen rek yéen ñu ñuy suivre ne gannaaw bu ñu épuisé suñu rubrique yi di ngeen mën a woote au 77 883 41 83 via WhatsApp bu ko defee ngeen mën a bokk ci waxtaan bi tey nag dinañu waxtaanaale lu jëm ci wàllu culture muy caada euh, xam ngeen ni am na benn euh, budget boo xam ne jot nañu ko dégagé benn aide euh, boo xam ne nguur gi dégagé na ko ngir ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu caada bu ko defee ñu taxawu leen ci jamono yu métti yi nga xam ne ak crise bi nga xam ne Covid 19 bi daal dina koy occasionné dinañu dem xooli également ñi nga xam ne ñooy géwél yi xam ngeen ne ñoom d'habitude ci li ñuy dundee mooy ci xew yi euh, ngénte yeeg euh, li nga xam ne mooy mariage yeeg euh, yooyu yëpp xew-xew yi daal xew-xew yi daal ci la ñuy profité ñoom mooy seen gagne-pain donc ba tax ak restriction yi nga xam ne am na ci Covid 19 ba tax mu am ralentissement par rapport à activités yi par même sax inexistence activités yi donc looloo waral ñoom ñu daal di yëglu dinañu dem ci loolu yëpp dañuy rek daal di jàll ci beneen rubrique muy news du net ak Mohamed Sissoko bien sûr dañuy si ñëw gannaaw bi ñu voilà ni ma leen ko waxee sànq rek euh, ci news du net ñi am mbégte nag euh, ànd ak yéen saa ne ñi nga xam ne ñoo ñu suivre Euh, ci askanu Sénégal euh, waa diaspora bi yëpp ñu ngi leen di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre également ci euh, ci réseaux sociaux yu YouTube comme Facebook ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di rafetlu ànd bi ñuy ànd ak Sénégal 7 saa su ne donc ñu ñëw rek ci news du net hmm, ak Mouhamed Sissoko loo ñu indil tey. ni ñu ko waxee ci sommaire bi. ni ni ko waxee ci sommaire bi xanaa ñu. ñu faram fàccee rek li li point yooyu noonu mooy bi bi ci njëkk mooy fan yi ci ginnaaw exactement semaine passé dafa amoon benn euh, sujet bu fi bu fi bu fi nekkoon à du jour mooy euh, la gestion du littoral te le maire de de de Mermoz Sacré-Cœur nekkoon ci di ci xeex depuis depuis depuis lors nekkoon ci di ci xeex depuis lors léegi démb dafa am benn bu xew ndaxte samedi passé ba mu demee def interview fële ci euh, site boobu di Dakar Matin dafa dafa mettre woon dafa dafa dafa révélé woon cinq mille mètres carrés bu benn Djibril Diallo euh, moomoon te après. du sous-préfet bu euh, Dakar mais nag du. Dakar plateau du sous-préfet tur yee daje du Djibril Diallo boobu. Ah, du beneen du beneen. d' accord beneen Djibril Diallo kooku. haut la di nekk di liggéey ONUSIDA. ah très bien kooku kooku la léegi démb la le le le sous-préfet. Uh-huh. tontu ne moom. lever l'amalgame ba pare. Mhm. gannaaw ba mu lever amalgame ne moom euh, Barthélemy dafa juum ndax euh, fi mu wax ni la plage de de Mermoz bokkul ci commune am. bokkul ci commune commune am loolu loolu la loolu la wax. Mhm. mu mu sukkandiku ci décret 96 745 du 30 mars 1996. Mhm. pour bu bu délimiter bu créer les communes euh, d'arrondissement en 1996 ak la réforme là. mu mu mu mu mu mu évoqué loolu wante xam nga Barthélémy Dias moom it ku ko attaqué mu tontu mm-hmm. <laughs> mu mu moom it mu def mu def vidéo ci page Facebook am mu riposté mu tontu mais moom dafa ne la la le le sous-préfet euh, décret bu mu wax a été abrogé. Mm-hmm. par le décret 2008 1025 euh, du 10 septembre 2008. donc pour moom décret boobu noonu amatul comme bii ñëw na pour abroger bële. munoo munoo munoo munoo jël sukkandiku ci bu njëkk bi bu bu njëkk ba mhm. pour pour pour justifier ça mhm. euh, loolu loolu la wax wante Barthélemy comme moom euh, bombe à défragmentation la mhm. <laughs> moom tamit attaque tontu na euh, kii di Pierre Goudiaby Atepa tontu na ko tontu yu xaw a yu xaw a dëgër tuuti ne ko moom nag gannaaw ba mu ne respecté na ko nekk na ko mu respecté moom mm, nee na ko moom Barthélemy Diaz en tant que maire yu muy joxe yëpp li muy joxe ci ay autorisation yëpp euh, code des collectivités locale ak loi bi moo ko koy permettre ku ko respecté wul du ko joxe na exemple cité kër góor gi ñoo xamante nekkuñu sur la sur la sur le littoral te jox na leen autorisation ci noonu mu ne comme mu mu interpeller euh, le l'architecte mhm. muy Atepa ne ko yow mi nekkoon euh, conseil en architecture du président Wade Mhm. te ba ñuy jox Jibril Diallo bii nii cinq mille mètres carrés yow la yaa fa nekkoon est-ce que yëgoo loolu mu nekk ba benn question boo xamante ne. Mhm, mhm. ci suuf am na lenn lu ko laal. lenn lu ko laal moo nekkoon suñu premier point. Ah. suñu deuxième point. léegi foofu balaa ngay egg ci deuxième point bi Mouhamed euh, sànq wax nga euh, ci lu jëm euh, benn décret buy ci wàllu délimitation. Mm-hmm, mm-hmm. entre territoires yi et cetera. mais est-ce que loolu justificatif la pour quand ñuy brader li nga xam ne mooy littoral bi. bon warul nekk justificatif parce que moom lu tax mu mu mu mu dafa ne Barthélémy Diaz amul autorité ci zone boobu parce que. Mm-hmm. décret bi boolewul zone boobu ci commune am. Mhm. Barthélemy Dias génnee beneen décret bu mujj bu gën a récent boobu ne ko sa décret bi ngay wax amatul sens parce que décret bi moo moo moo moo mujj donc mhm. j'ai autorité foofu mhm. xam nga loolu loolu la mais ah, dans tout état de cause xam nga li war a li li war li li am mooy ñun sénégalais nous les dakarois nous les jur ñoo de de Mbour on doit avoir accès à la mer la mer ne doit pas être privatisée je prends pas parti mais loolu moo war a am. no politiciens yi ñoo koy def je prends ma position de citoyen <laughs> politicien rek ñoo koy def. ñoo ah, ah, ñoo koy ah, ñooy séddoo affaire yi. noonu lañ ko gisee te fële ne Abdou Khadre yow amoo fa amoo fa mënoo fa jënd dix mètres carrés soose peut-être soose. <laughs> peut-être soose mais man mënu ma fa jënd cinq mètres carrés. <laughs> non qu'on se dise la vérité. Uh-huh. ñi fay jënd dem na l'autre jour Barthélémy Diaz a même cité. un neveu d'un président africain bu fa am suuf bu bari si si si si si. non c'est la c'est la mafia. ah moom dem na sax ba wax am ay sous-entendus yu mu ci def mais ñun duñ ci yegg mais l'essentiel mooy problème boobu mi ngi mi ngi commencer am ay xëccoo xëccoo et ça a des allures man analyse bu moo ci am ak interprétation li ma interpellé mooy. Mhm. le préfet qui est un administratif. qui est un administratif quand warul dugg te il dafa tàmmoon lii di dugg ci ay wax politique le sous-préfet là mm-hmm. Mm-hmm. le sous-préfet là am na des démêlés ak Bamba Fall tey moom ak Barthélémy Diaz et chaque fois tu sens que day xaw a am fu mu fare d'accord xam naa loolu dinañ ko faram-fàccee ci ay analyse yu ñuy def ci Sénégal7 point com voilà ñu jàll ci deuxième point bi deuxième point bi dañuy wax ci Euh, retraite u basketteuse bi di Astou mhm. mu nekk nga xamante ne euh, sénégalais yi xam nañ ko ci njàmbaaram xam nañ ko ci ci ci ci bëgg réewam mhm. koo xamante ne boo jëlee histoire afro basket féminine ndaw si moo nekk ki ci ëppale lu mu ci sànni ay pañe mu xeexkat la macha allah kii mhm. kay tabarkaal mu nekk mu démb ñu toog ba midi parce que démb ci suba fii ñu ngi fi wax ni convoqué wuñ ko équipe nationale. Mm-hmm. léegi le sélectionneur national ne moom dafa woo Astou Traoré. mu ne ko moom retraité mm-hmm. léegi bàyyi na xale yi ñu kii nee na après mu mu félicité ko mu mu mu tatagal ko ci ci article bi suñu article bi ñu def dem ñu ngi ko ci mm-hmm. ñu ko ciy fàttali. wante ci ngoon gi Astou Traoré defaat benn sortie ne moom même bu jëlee retraite. du keneen moo ko war a annoncé mhm. moom moo ko war a annoncé boppam waaw moo ko annoncé boppam donc warul woon le le nga xam ne moom tamit moom mooy euh, directeur technique basket mhm. warul woon mu koy koy annoncé mu nekk genre polémique boo xamante ne mhm. bon xaw na xaw na am ci basket te du du du woon loo xamante ne séntu nañ ko si séntu nañ ko si mais annonce retraite am moom moo ko moom aussi moom moo koy décret moo koy moo koy annoncé moo koy. effectivement comme tout décision le monde. Mm-hmm. et moo tax moo tax tout le monde comprend. <laughs> voilà moo tax tout le monde comprend. moo mm-hmm. moi je comprends Moustapha parce que nga ñëw def def convocation dégguñu Astou Traoré xamuñu si lu mu nekk convoqué woowu sénégalais ak fu ñu teg la dame ils vont te dire mais yow lu tax jëloo kii. Mm-hmm. dañ la koy wax je je je la comprends mm-hmm. je la je le comprends Moustapha Gueye mm-hmm. mais Astou Traoré aussi il faut il faut la comprendre mm-hmm. moom am na fu mu tollu Sénégalais yi mu xam ko am lu ko Sénégal jaral mu xam ko mu ñëw jékki-jékki waxtaan ak Socé Socé wax ko benn affaire Socé annoncé ko te moo ko waroon annoncé sénégal yi par respect aux Sénégalais man aussi je comprends ni lu tax saa sorti lu tax mu rek la waaw d'accord loolu loolu tam dinañ ko dinañ ko comprendre alors ñu ñu jàll ci ñetteelu poñ bi ñetteelu poñ bi xam naa ne boo booy am vidéo bi mais y a pour des raisons techniques xam naa certainement du mën jàll mais ñu faram ko ñu waaw mm-hmm. benn dernier point bi rek mooy euh, euh, dañuy fàttaliku un grand sénégalais mm-hmm. un des hommes qui ont bâti le Sénégal mu génnoon àdduna le 10 juin 1968 muy maître Lamine Gueye Amadou Lamine Gueye hmm. waaw mu nekk ka nga xamante ni mu ngi juddoo à Médine au Mali hmm. mais il est d'origine sénégalaise euh, euh, sénégalaise hmm. moo koo xam mu nekk koo xamante ni il a il a il a dirigé les deux capitales sénégalais en tant euh, du Sénégal en tant que maire il a été maire de de Saint-Louis il a été maire de Dakar mu nekk koo xamante il a commencé sa carrière en tant qu'instituteur jàngale na kaw jàngale na Kaolack ak dëkk yu bëri. Mm-hmm. avant d'aller en France à Bordeaux def droit il est droit il est le premier avocat noir. Mm -hmm. le premier avocat noir dellu si def la politique adhéré au SFIO SFIO mooy la section française de l'internationale ouvrière. Mm -hmm. mooy l'ancêtre du parti socialiste. tout mm-hmm. c'est l'ancêtre aussi du parti. socialiste sénégalais aussi. Mhm. parce que moom moo fi indi le socialisme moo fi indi Senghor. Mhm. c'était le le le le parrain de Senghor dans la politique ñu dem mook Senghor ñu ñu ànd ànd ba mu am division bu metti moom mu des euh, fi mu nekkoon au parti social mu SFIO. Mhm. Senghor génn créé BDS mu diviser le Sénégal bu metti. y a des familles qui se sont brisées. Mm-hmm. en en quarante huit. après heureusement ou en cinquante huit ñu retrouvé wu. d' accord en cinquante huit ci la ñuy créé le l'UPS. Mm-hmm. qui a été l'ancêtre du de l' actuel PS. Mm-hmm. après en partie de soixante il devient le président de l' assemblée nationale jusqu'au 10 yàlla jël bakkanam Mhm. askan bi yëpp vidéo bi lu tax ma bëggoon ñu jël ko. Mhm. dafa am ci enterrement période boobu en 68 le Sénégal ngam duñu woon bëriwuñu woon nit. Mhm. mais boo gisee la foule bu accompagné euh, maître Lamine Gueye da ngay xam ni kii les Sénégalais le portaient dans leur cœur. waaw mu nekk un grand homme un grand monsieur un grand aussi fait voter une loi boo xamante ne c'est historique c'est lui qui a supprimé. l'indigénat mmh. dans les colonies françaises mmh. donc c'est un grand monsieur. l'indigénat mooy couche bi nga xam ne te mooy xam nga au Sénégal di défavorisé. xam nga par exemple bu ñu jëlee Sénégal bu ñu jëlee Sénégal ku juddoowul woon. Rufisque Rufisque. Gorée Gorée Saint-Louis Saint-Louis ak Dakar yow doo nekk citoyen sénégalais. c'est ça indigène nga nekk. Hmm. moom genre esclave quoi. non du sax esclave mais il te considère pas comme français. tout à fait. Mhm. léegi moom moo indi loolu ba nga xamante ne nga juddoo Ngaay Mexe nga juddoo euh, Gidi Maxa tu es sénégalais. Mhm. tu tu es français moom moo ko fi indi woon mu nekk aussi ay kii. Euh, un monsieur un très grand monsieur. d'accord euh, fu may daanelee rek. Uh-huh, benn benn phrase am benn phrase am rek. Mhm. et je l'ai lu démb ci guddi et sama kii muy mu dafa daan wax nii. on n'a jamais rien fait pour son peuple tant qu'il reste quelque chose à faire waaw mhm. ah, c'est quelque chose ba nga xamante ne une phrase bu ñu bari war a jàng d'accord on a on n'a jamais rien fait pour son peuple mhm. tant qu'il reste quelque chose à faire d' accord donc loolu ñi nga xam ne ñooy ñoo yore euh, wàllu service public bi ñi nga xam ne dénk nañ leen quelque mission que ce soit mu doon loo xam ne ci domaine public la war nañ ci bàyyi xel gën a yokk jéego askan wi itam en termes de citoyenneté aussi li ñu war a defal seen réew rawatina si. contexte bi ñu nekk nii de lutte contre la la Covid 19 ku ci ne am na waar boo ci ba war a bay ngir sàmm sa kaaraange euh, concitoyen donc lu am solo la Mouhamed euh, Sissoko ñu jaajëfal ko bu baax ci news du net euh, sans plus tarder dañuy jàll ci beneen rubrique di article du jour. les articles du jour dañ ci ànd ak euh, Socé Ndiaye Socé euh, ñu ngi lay nuyuwaat. Faat noonu la di nuyuwaat mbokku téléspectateurs yëpp. Mhm. alors loo ñu andil tey ci les articles du jour. l'observateur la ñuy tàmbalee. Mhm. foofu nag moom Luc Nicolaï xam nga Luc Nicolaï. Mhm. waaw moom dafa mera mera mer ba. promoteur bi ba daal di waaw mooy waajooju di tëgg làmb yi te mu xees rek. waaw dafa mer. mer na lool ba commencé li nga xamante ne moo di grève de la faim maanaam xiifal. ah moom daal nee na. bàyyi bi ñu bàyyi ki nga xamante ne moo di Seydina Fall ñu gën koo xam ci Bougazelli xam nga mhm. Bougazelli tuddul Bougazelli mhm. Seydina Fall mhm. nee nañ bàyyi boobu warul ñu bàyyi Seydina Fall ñoom ñu koy bàyyi moom ñu koy bàyyi ci biir kaso bi ndax li ñu li condi euh, maanaam li ñu expliqué ci bàyyi bi ñu bàyyi euh, Seydina Fall moom la ñu expliqué woon ca euh, ca kaw Hissène Habré ba muy raison de santé ak Covid 19 bi waaye Luc Nicolaï moom dafa jàpp ne Seydina Fall moom gënu koo nekk sénégalais gënu ko ci réew mi fu ñu bàyyee Bougazelli war nañ ko mën a bàyyi moom Luc Nicolaï loolu daal moo tax depuis démb wax dëgg yàlla tàmbali na benn xiifal boo xamante ne nee na nag du ci dellu ginnaaw. Mm-hmm. ak grève de waaw xiifal boo xamante ne moom amul app mooy grève de la faim illimité. Mm-hmm. amul app loolu mbokk yi mu ngi ci mi ngi ci l'observateur u tay bi ku ci bëgg am ay détails ñuy fàttali rek Luc Nicolaï moom juróomi atu kaso la war a tudd la war a tëdd. Saint-Louis lañ ko yóbbuwoon waaye dañ ko mujj transféré fi nga xamante ne moom moo di moom moo di cees donc foofu nag la tàmbalee yi nga xamante ne moom moo di grève de la faim mhm. bu ñu jógee foofu ñu dem ci laas bu tey bi foofu nag moom sunu sunu mbokku taskatu xabaar yi ñoo fa ne waaw ñoom mhm. aussi dañoo mere lool lool lool ministre de bi di Abdoulaye Diop. lu mu leen def waaw parce que ñoom nee nañ Abdoulaye Diop faalewu leen joxu leen gëdd toppatoowu leen pour deux raisons ci njoxe bi ci njëkk mooy. ñoom nee nañu directive yi Macky Sall di jox yépp concernant la presse. Mhm. nee na Abdoulaye Diop def ci dara. dañoo def benn benn benn benn bataaxal bu ñu adressé Macky Sall di ci ñaawlu ni leen seen ministre de tutelle di di di di di di di di. di mhm. waaw. mais loolu nu ñu ko mën a expliquer Socé. non dañ lay teg fenn pour benn mission. jox la dénk la ay euh, euh, un certain nombre de travail. Mhm. wax la lii ak lii ak lii da nga ko war a accomplir mais yow lu la neex ngay def en tant que ministre tu au service de la de la communauté. waaw non bu fekkee bu fekkee am na. Mhm. bu fekkee am na bu dee am na oui bien sûr. lu doy waar mhm. la. parce que aussi ministre askan wi la fi nekkal. moo tax ma ne bu fekkee am na parce que comme dégg gu ma ba léegi le ministre aussi wax ci. oui du ma mën a. mais ministre là ministre là. waaw ñi koy attaqué bari nañ de. bari na. bari na mais ba tey xam nga kiy attaqué version rek ngay dégg. waaw tout à fait feeg demoo ba dégg version ki ñuy attaqué. mënoo évaluer doo mën a doo mën a <laughs> doo mën a doo mën a kii waaye daal li am ba des mooy les acteurs de la presse ñoom xam nga dañoo dugg ci benn association bu tudd CAP. Mm-hmm. CAP CAP mooy coordination des associations de presse. Mm-hmm. CAP boobu nag dafa adressé une lettre au président di vraiment ñaawlu ni le ministre de tutelle di gérer affaire yi. Mm-hmm. bi ci njëkk mooy aide à la presse. xam nga indiwoon na fi coow. ba ñu bëri gedd sax. Mhm. ay tey média ñu bëri genn seen chèque nee nañ kenn rek moo gedd parce que ñoom non xam nga gars yi dañuy wax ci kaw après dem ci suuf <laughs> waaw <laughs> démb rek ñuy dégg suñu suñu grand Madiambal Diagne di ko wax mu ne moom dafa yàgg nekk ci xeex bi mais ba mu demee ba gis ne gars yi fekk si wuñ ko ci muy jël comme ñëpp waaw te il a raison aussi donc aide à la presse bi mhm. waa CAP nee nañ directive yi ci Macky Sall joxe woon mhm. xam nga Macky dafa doubler aide à la presse bi 700 millions loolu ko ba 1 milliard 400 ñoom nee nañu ni ko ministre bi séddalee doyu leen ba pare tax teg xamuñu ku nekk lu mu am bi ci des mooy kaaw maison de la presse waaw ndax les acteurs des médias dañoo mës a kaas affaire u aide affaire maison de la presse ndax ñoom jàpp nañu ne maison de la presse presse bi ñoo ko war a gérer seen bopp mais ki fa nekk journaliste la c'est un journaliste mais aussi c'est un politicien Bara Ndiaye muy sunu sunu waaye ñu koy nuy au passage xaritu jeune la donc loolu aussi bokk na ci raison yi yi nga xam ne vraiment li leen metti trop te ñoom nag lii lépp nag ci ndodd ministre bi ko teg parce que ñoom nee nañ bu Abdoulaye Diop bëggoon tey tey tey mu dakk donc loolu aussi mi ngi ci laasu tey bi mbokk yi mhm. ku ci bëgg am ay ay leeral nga dem ci laas bi ñetteelu article bi ñu indil mbokk yi mu ngi nekk ci les échos mhm. mooy mbiru Senelec Akilee coow loolu xam naa ne moom du ñëwaat encore du gaaw a fay ci mim réew mhm. Senelec Akilee Senelec Akilee mm. waaw parce que dafa indiwaat dafa tax syndicat bi nga xamante ne ñoom ñooy waa SUTELEC wax Macky Sall na gëstuwaat yeneen contrat yi nga xam ne Senelec signé na ko ak yeneen i entreprise bi ku jiite. kii ki ko jiite mi ngi tudd Habib Aydara mi ngi ci journal bi bu demee di ngeen fa fekk photom mhm. waaw su xaw xees la nii di faral di takk ay lunettes. Mhm. SUTELEC syndicat bi mu jiite mooy syndicat unique des travailleurs de la Senelec xam nga Senelec aussi dafa bari ay syndicats. Mhm. ñoom ñii nag ñoom ñoo mës a wax ni contrat bi jaarul yoon. moo tax décision bi Macky Sall la ñoom ñu ngi koy rafetlu waaye dañu ne Macky bu mu ca yam na dem gëstu yeneen contrat yi nga xam ne Senelec signé na ko ak yeneen entreprise bu ci mel ni Excelec xam nga Excelec démb rek ñu ngi woon directeur général Pape Demba Bitèye yi mhm. mu dem boori Kaolack boori Saloum suñu gox yooyu mhm. ah ndax ay poto lampe yu fa yu fa Excelec war a def tirer ay câble ak yooyu mhm. entreprise boobu ki nga xam ne moo di Habib Aïdara nee na contrat bi mu signé ak Sénélec moo moo gën a jéggi dayoo moo pire contrat bi dox diggante Akilee ak Sénélec. waaw ah ah donc c'est à coup de de milliers de milliards alors. de milliards xaalis bu baree baree bari te nee na li ci li ci Sénélec di perte ci ay milliards kenn xamul mu toll. moom moo tax mu yëkkati kàddu moom it ne président bi ak IGE maanaam les corps de contrôle bu ñu yem ci dossier Akilee bi rek xam nga dossier Akilee bi déjà. waa ARMP ils ont choisi un magistrat ba jox ko dossier yi pour mu gëstu. mu gëstu waaw moom nag nee nañ mbooleen corps de contrôle yi ci réew mi dañuy ñëw biir Sénégal vraiment gëstu yeneen contrat yi nga xam ne. am na fa bu mel ne maa du mine d'or la pour ñoom. bu mel ne bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu taaxarloo tuuti. Hmm. Sénégal. mais Senelec moom coow la fay jógee moom dana bari. mais socé bu fekkee dañu jël les corps de contrôle dugal leen Senelec. Mm. ñu def audit def lu lu nekk ñu def ko. Mm. bu ñu ñëwee justice war a tranché. Mm. ñu gis ne magistrat yooyu nga xam ne ñoo war a tranché wala ñi war a jugé. njiitu réew mi daf leen ngànk nii. du doon jafe-jafe. waaw loolu nag moom c'est un autre problème boo xamante ne yaa koy posé. pour que pour <laughs> dire juste pour justement que mbir mi dafay tàmbalee ci indépendance justice. pour que ñu mën a am véritablement. waaw euh, les dossiers yi nga xam ne sénégalais yi en réalité dañ ci war a gis seen bopp. waaw mais loolu aussi problème beneen sujet la effectivement. mais juste pour aborder ko. li ñuy reposer mooy les pouvoir exorbitants yi ñu jox le chef de tout à fait tey ku mel ne ARMP IGE OFNAC war nañ mën a pare seen seen liggéey. Mhm. jébbal ko directement le procureur. sans pour autant que muy jàll ci président. mais bien sûr bien sûr topp leen kii mu leen topp kii mu ci mu ci teg. au delà de l' institution qu'il le président de la république il est un civil ah. voilà il est un civil donc en fait man li ma comprendre sama xalaat la personnel mooy. pourquoi ñu koy jaarale ci moom pour que moom aussi mu mën a apprécier en tant que chef de l' état. et pour mettre aussi... le coude aussi ah. ah comme ça on loolu moom. <laughs> mais on se rappelle du am na nag yu mu teg coñ moom nag weddi na ko de. non moo ko wax nag. mais daal li leer mooy gis nga Senelec moom. Mhm. ay dara mi ku ko topp moom di fa gis yeneen mbóot yu wute ak contrat bi dox diggante Senelec ak it donc toute façon Sénégal sedd dina ko topp aussi mi ngi ci écho tey bi nañ yoon nañ yàgg rek. <laughs> mi ngi ci journal Les Échos bu tey bi mbokk yi. muy demee mboolem leeral lépp ngi nii. donc euh, muy détail yépp bu mu bi nag mooy li lëmbe jamono yi jamono yi mooy mbiru Lamine Diack. Mhm. ak Pape Massata Diack foofu tamit. Mm. li fa sunu grand bi di Cheikh Mbacke gisee bind tey yéeme na de. Mhm. yéeme na lool. waxtaan wi dox diggante xam nga àtte bi Lamine Diakha ci gën a siiw waaye du moom rek. Mhm. am na ku ci bokk ku ñuy wax maître Habib Cissé. Mhm. avocat ak ki nga xamante ne mooy doomu Lamine Diack di masat a Diack tey nag libération dafa def focus ci waxtaan woo xam ne doxoon na diggante. maître Habib Cissé ak Pape Massata Diack ci ay SMS ak ay email yi ñu doon envoyante ci mbiru xaalis xam nga mbiru mbiru mbiru mbiru Lamine Diack bi mi ngi tàmbalee ci benn ci benn athlète boo xamante ne mi ngi tudd Leila Shobakova mhm. kooku benn agent dafa mës a wax benn liggéeykatu IAF i 2 ne kooku dafa fay xaalis bu bari fédération athlétisme ba nekk russe nga xamante ne ci I2AF la bokk pour ñu bañ ko boole ci liste ñi nga xamante ne ñooy dopewu alors que dafay dopewu en réalité dopewu en réalité parce que bi ñu ko testé effectivement il a été positif voilà mmh. donc dañ ko waroon suspendre xaalis boobu mu fayoon nag moom moo ko doon permettre mu am protection totale dañ naan full protection c'est ça léegi nag transaction bi communication bi par SMS email yi yooyu yëpp ñu ngi ci libération bi nga xamante ne tey mooy bu tey bi mhm. montant yi sax yi ñu doon yi ñu doon discuter entre ñoom ñaar mu mel ne daal c'est dossier boo xamante benn benn ci montagne. dëkk montagne yu ñu cité foofu am nga ko foofu. bari na bari na ñu ngi fi wax. ay cent cinquante ay cent cinquante mille euros. ay cent quatre vingt dix mille euros trois cent mille euros cent quarante sept mille euros xaalis bu bari tout à fait loolu donc mbir la moo xamante ne aussi ñu koy commandé nañ ci tey nañ ci tey ba xam atte bi fu muy mujj. li leer ba leer daal mooy tey libération tey bi moom. Mhm. te indi na ay leeral yoo xamante ne muy mm. communication bu dox diggante. mais mais aussi euh, Massata Diack bii. Mm. moom cité woon nañ mus na am démêlé à avec la justice sénégalaise ci affaire Pamodizi ak fédération. waaw moom c'était en 2002. waaw waaw euh, après 2002. non même même dossier bii sax moom déglu nañ ko fii Dakar. Dakar waaye effectivement. déglu nañ ko fii. Mm-hmm. te loolu moom mooy raison bi taxoon sax d'ailleurs xam nga procès Lamine Diack bi njëkkoon nañ ko jàpp. Mm-hmm. après ñu nañ ko plusieurs fois. waaw parce que moom mi éléments yi nga xam ne justice française ñu ngi ko doon laaj depuis 2016 dafa tardé mhm. waaw le 3 bi ñu ko njëkkoon jàpp. pour pourquoi ñu dekkale ko ba le 8 le 3 lañ ko waroon def léegi ci la ñu jot nag les derniers éléments de son audition moom mii donc mu mel ne moom it li leer ba leer daal mooy mbokk yi. Mhm. ku ci bëgg am lu lu lu daal moom libération bu tay baa ngi nii. le grand Cheikh Mbacke Guissé def na ci article bu yaato yaato yaato donc Abdou Khadre loolu moom mooy les articles du jour. d'accord ñu jaajëfal la bu baax euh, Socé Ndiaye ci les articles du jour permettre leen un peu ngeen am un aperçu comprendre un peu li nga xam ne moom la ñu faram-fàccee ci wàllu actualité te ñu yaakaar ne mën na. leen intéressé euh, balaa may jàll ci beneen rubrique di reportage bi damay rek euh, liir benn commentaire euh, je me rappelle Socé Mohamed waa ji mu ngi tudd El Hadji Amadou fay am na benn jour jot naa message am dans les commentaires nee nañu ñoom moom il est il est il est en France te nee na contacté na président de la République contacté na l'ensemble des ministres également ministre de la santé et de l'action sociale ñoom nee nañu dañu am benn remède contre la Covid 19 bu efficace à 99 pour cent. nee na contacté na leen je me rappelle avoir avoir lu benn jour ce euh, message am donc nee na remède boobu c'est efficace interpellé na autorité yi ba sonn mais kenn joxu ko kenn joxu ko euh, kenn kenn kenn kenn kenn. kenn faalewu ko donc euh, mu ngi noonu ñun xam naa ne. Euh, lu ñu ci mën dinañ ko ci def. moom lan la docteur médecin la wala euh, wala wu ko xam naa ne certainement dina contacter Sénégal 7 euh, soit par message boo mm-hmm. demee ci page Facebook bi mën nga ñu fi bind bu ko defee ñu gën a am. plus de détails par rapport ak. message bi voilà moo la mu envoyé numéro après ñu gën a yaatal waxtaan bi de la page Facebook de Sénégal 7 wala ci 77 881 40 883 41 83 wala boog sax mu woo ñu bu ko defee ñu daal di jokkoo. ci ci mbir moom waaye li ciy gën a am solo daal tey gën a décisif mooy mu jot ñi nga xam ne ñoo cinq hmm. mbir mi ah, parce que ñoom jotali rek la ñuy Sénégal nag loolu moom yàgg nañ koo jooy ci mim réew hmm. gis nga gars yi parfois jot leen te gis nga avant ñuy falu hmm. man mën naa la citer ay ministres yoo xamante ne ñu ngi ci biir jamonoy M23 man j'étais dans le M23 le deuxième site internet de M23 man maa ko defar dama doon toog di liggéey ay gens yoo xamante ne ils sont aujourd'hui ñoom ñoo wër waaji ñooñu tey pour ma pour ma jot leen man personnellement c'est tout un problème cest à que il faut que aussi ñuy ubbeeku. Mhm. gis nga jiitawuñ la rek pour nga ñëw toog sa biro taal sa kilim yor sa journal di lire di signer da ngay jël nit ñi xam nga xam nga Cissé Lo wax na ko fi barki Demba Ndiaye kii le ministre de l'éducation. Mhm. da koy woo ko jël di ko mes mais pour lan il faut que ñuy ñuy mu ubbeeku. nit ñi di leen jot bu ñu leen soxla di leen gis bu ñu leen soxlaa parce que loolu moo tax ñu teg leen je pense qu'ils ont un peu un problème de de compréhension xam nga xam nga ñun on a un problème dañu am ay njiit yu nekkul kilifa c'est ça notre problème hmm. xam nga kilifa day day day da ngay déglu sa njaboot da ngay déglu sa njaboot kilifa hmm. da ngay dangay ngay da xool sa yitte mooy sa njaboot li li muy dundee saa su nekk wala sa njaboot lu muy jàmbat nga jéem koo saafara. Mm. pour man kooku mooy kilifa léegi njiit nag day taxaw ci kanam rek ay ca leen ñu def bàyyi leen toog leen ñoom droit bu ñu leen biñ bi nga xam ne ñun ñoo ko jël si wàññi si suñu boos jox leen ko rek la ñuy bàkkoo. mais y a le y a le sens du leadership aussi ça manque beaucoup. Ah, leadership c'est pas que nga jiite benn affaire mais il s'agit également dem ci biir communauté bi euh, xool li nga xam ne moom la ñu bëgg et cetera et cetera inciter leen ci li xam ne mooy jëmale réew mi kanam. Abdou Khadre moo tax mm-hmm. ma ne la. dañu nekk ay njiit te duñu kilifa. Mhm. le kilifa day day incarner le leadership di mun a nemmee nemmeeku ay njabootam di mun a xool seen njàmbat di ci dox ne ñu ñuy jiite li soose wax dangay ànd ak nit guddi ak bëccëg nga koy guddeel di ko bëjëgal su. bu faloo bu bëtam nga faj nga fajal ko ko. kooku noonu bu faloo bu faloo dalay lay fàtte. d'accord tout tout. Uh-huh. li ma ci bëggoon dolli rek mooy jamono yi nga xamante ne ñu ngi wër. vraiment luy faj jàngoro ji mhm. benn nit ni moom am na loo xamante ne mën na ko mën efficace na à quatre vingt dix pour cent kooku lu mu dee dee quatre vingt dix neuf pour cent quatre vingt dix neuf pour cent la wax kooku ko mën a may nopp xool li muy proposé lan la mais mais mais le cas de l'artémisia euh, euh, euh, covid organique bi mais comité scientifique bi ñu taxawaloon pour mu rédiger protocole bi professeur Daouda Ndiaye xam ne na nii c'est ok mais il y que c'est la direction de la pharmacie et de l'approvisionnement moom mooy tardé pour euh, wax wax lu leer ci mbir mi quelle suite à donner. boo demee ci loo xam ne dafa war a mën a peut-être peut-être mën na saafara askan wi mën na saafara rapidement ñi nga xam ne ñoo amee feebaru Covid xam nga xam nga xam nga pour ces histoires de procédure la bu fekkente ne dafay hypothéquer la vie de tous les Sénégalais il faut que aussi ñu xoolaat mbir mi pour une simple boo demee ka ko war a signé mi ngi ci nature bi taxawaalu quoi moom il prend tout son temps mhm. xamul l'urgence dans laquelle nous nous sommes pour vraiment am des solution aussi bu ñu mën a génn ci jàngoro ji il faut aussi je pense que le ministre la euh, Abdoulaye Diouf Sarr mais dafa war a aussi ji mais il doit être ouvert parce que loolu aussi mën na leen jàppale c'est inexplicable mhm. il faut il faut que ñi ñi ñu jiital ñi war a jël les décisions que ñu ñu jël seen responsabilité ça c' est la responsabilité seen responsabilité la ñoom ñoo ñu waxoon dañu nekk en guerre. ñoom ah ñoom ñoo ñu ko waxoon. guerre ñu naan la am am na am na ngànnaay ngi nii nga naan xaaral ma xool ndax baax na loolu toute toute façon dinañ ci dinañ ci yaatala euh, le temps le temps passe xam naa ne dañuy dem rek euh, daal di euh, xooli ji reportage bi ci ñi nga xam ne ñooy ñooy géwél yi ñii di yëngu ci wàllu xew yeeg yooyu ñoom dañu amoon benn toogaanu ñaxtu gannaaw bàkk bi dañuy dem xooli leen li ci njëkk balaa ñoo yëglu dañuy delloo njukkal son son excellence le président de la république Macky Sall ci nii mu solidarité ni mu solidaire ci digganteem ak sénégalais yi waaye nag di gërëm ak kañaan le ministre de l' intérieur Aly Ngouille al surtout Alboury Ndiaye te na Ndiémé ak Aly Seynabou ndax tey gis nga police bi la ñu yebal ñu duñu garder tranquillement le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr marsunu déconné wunu dañuy yëglu sañ nañu ko. marche déedéet du nu marche géwél du marche. géwel du marche ku say maam violent wuloon démb doo violent tey Fadel xam ne li may wax ñun géwél yi nag dañoo bokk ci diggante ministre de la culture et de la communication Ablaye Diop géwél yi rek la bëgg géwél yi rek la sopp géwél yi rek la faale ñun nous avons un Farba Ngom auprès président de la République nous avons un Mame Cheikh Mbaye Mansour auprès du président de la République mënul dañu leen di interpeller ñun ndax kat événement bu masaan a jot Farba ak Mame Cheikh daan nañ ci ba géwél bu ne président mosalla loolu baax na donc li nu bëgg li nu ñaan moo nu yolomal ministre bi ndimbali da koy génne da li limousins yi li ñu ci war a am danañ ko ci am lu communicateur traditionnel yi war a am day jaar ci loxo Hadj Mansour moom mi nga xam ne mooy le président de communicateur traditionnel mu ñëw ci ñun lii leen soxla mu ngi noonu mu ngi noonu donc ñoom nee nañu euh, ñaxtuwuñu euh, marché ñu dañuy yëglu rek ndax ñoom nee nañu ci ministère de la communication et de la culture la ñu bokk donc euh, defe naa ne seen seen marketing ça passe ça <laughs> passe nice quoi. ñi leen war a ñii ñoom dañ bàyyi xel quoi parce que gis nga xam nga géwél tax mu garaaw li xew ci réew mi yëpp ñoom ñoo koy fekkee. Uh-huh. c'est des historiens en même temps dañuy dañuy am mémoire boo xamante ne tey. dañ ñu ñu war a bàyyi xel te dañ ko waxee aussi ñoom it ci réew mi lañ bokk de. Mm-hmm. ci réew mi lañ bokk. Mm-hmm. Euh, contraste bi mu wane rek mooy gis nga ko au moment où les acteurs de la presse di tirer sur le ministre ñoom ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy tàgg di ko di ko di ko di ko. voilà c'est un peu aussi leur spécialité. xam nga la presse ñoom ils ont un l'esprit critique. dañuy avec voilà. raison dañuy analyser situation yi donc. Oh non je dire que foo foo gisee ku lay attaqué. à côté ñu lay jàppale voilà <laughs> mais li mu wax aussi c'est légitime mais mm-hmm. par rapport ak yolomal bi je pense que loolu entré na en vigueur déjà. Mm-hmm. fi mu toll nii fu leen neex dem lu leen neex def waaye daal dañu sàmmonte mais rassemblement yi aussi c'est c'est c'est un peu c'est c'est limité. voilà c'est limité donc ñoom mais surtout dañuy sàmmonte ak aussi ak ak mesures yi. c'est ça nañ def lii baax na mais aussi bu ñu ne la defal. bu ñu ñëwee fekk la fa nga koy defee del takkal masque au moins respecter distanciation physique beeg yooyu. Euh, mais ñoom parfois dañ ci boole ay xorom yoo xamante ne day safal affaire yi quoi. Mm-hmm, mm-hmm. mën na mën na mën na déstresser sax. Euh, c'est mën na déstresser man par rapport à cette marche là. Mm-hmm. je suis pas du tout d'accord. Mm. du tout xam nga lu tax wax nga ko euh, l'histoire du Sénégal l'histoire de l'Afrique ñoom ñoo koy wax. aussi dans ce pays géwël yi y a pas plus digne que ñoom li ñu def nii dama jàpp ni dafa manqué dignité xam nga lu tax ñii ko def ñi ko def je su sûr que am na ay kilifa si seen askan yoo xamante ne euh, lii neexu leen. waaw mais euh, si soxor ko laa dee wequ aussi dëkk bi dafa sama avis laay joxe sama avis je suis d'accord <laughs> joxe parce que gis nga nit lu lu war a mën a tuutal sa askan rek da nga koy moytu. mun naa munoon naa d'accord munoon naa d'accord ñu ne ñun kat dañuy produire mhm. du ñu kii mais parce que xew yi dafay am mhm. ça c'est pas du loolu du argument loolu du argument pour man mhm. pour man c'est sama avis personnel man dama jàpp ni Sénégal fii nii boo boo boo boo boo ànd juróomi nit ñeent yi bu ñu la waree xamal ni géwal ger mooy de ak yow c'est des gens dignes qui mérite beaucoup plus que ñii li ñu li ñu exposé. d'accord ça c'est mon avis. très bien. très bien alors xool euh, il ne nous reste pas beaucoup de temps ñu fàttali ne ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre mën nañu woote au 77 883 41 83 bu ko defee ñu daal addu ci thème bi nga xam ne ñu waxtaanee nañ ko muy wàllu culture bi contribution bi nga xam ne war na ko am ci contexte bu ñu ne muy contexte de lutte contre la Covid 19 euh, di leen xamal ne également mën ngeen addu ci bilan bi nga xam ne am nañ ko tey ndax tey am nañu lu toll ci 89 euh, euh, lu toll ci 124. cas positif tey ci journée tey bi bokk na ci cas ci euh, bilan yi nga xam ne ñoo gën a ñoo gën a monté gannaaw 177 yi ñu amoon 136 yi ñu fi amoon euh, tey ñu am 124 cas donc mu doon benn taux de positivité bu 10 virgule 2 pour cent donc pour xamal leen ni mën ngeen mën ngeen woote pour àddu ci mbir moomu waaye balaa loolu ñu dem rek xooli suñu invité di euh, professeur professeur Sanoussi di philosophe moom dafa ñuy wax apport bi nga xam ne culture mën na ko am ci xeexu Covid 19 bi euh, ci ci Sénégal euh, jamono ji wala Jules nee na mën nañu jël appel yi donc balaa ñuy ñëw ñuy ñëw ci loolu c'est c'est important parce que euh, voilà donc euh, ñu jël ki nga xam ne moo nekk ci ligne bi salaamaaleykum. waaw moom mu ngi egg si ñu nuyu ko salaamaaleykum salaamaaleykum. salaamaaleykum. aleykum salaam. waaw man la Ibrahima maa ngi France. d'accord ñu ngi lay dalal di la nuyu bu baax. incha allah. waaw dama bëggoon waxtaan wax tuuti rek ci manifestation bi ñooñu wax géwél. Mhm. waaw man de d'accorduma ci xaw ma nag peut-être mën naa bañ a bokk nit ñi avis. Mhm. jamono ji toll mutation moo waral mutation. une mutation c' est quoi réellement mooy ci benn ci benn parti xam ne dina ragal ne bu ñu ci génnee li njëkk a mën a def mooy laver les consciences waxtaan ak leneen éviter le gaspillage éviter les événements parce que bu fekkoon ñoom produire ay ay œuvre ay trucs comme ça mais ñoom li wax mooy mënatuñ dem ci ngénte mënatuñ dem ci ceet mënatuñ allo Ibrahima Ibrahima boo ñu mënee baal déplacé wu tuuti comme ça déggante bi neex allo oui. Mhm. c'est un peu clair. Euh, oui allez-y ñu xool. voilà man yi man yi seen manifestation man d'accorduma ci. d'accord. xam nga lu tax euh, ndax ce sont des gens que je respecte beaucoup parce que ñu nag ñoom noo bokk noo bokk société bi ñoom nooy sont les gardiens les gardiens de l'histoire tout mhm. cela c'est bien boo ñoom nooy wax lu démb nooy wax lu tey lii nooy jëm a boole loolu tout ça c'est bien boo mhm. mais ça dépend ci angle bi nga koy xoolee mooy que ne bu fekkoon ni ñoom. ay œuvre la ñuy teg wala ñuy bind di fi teg wala di teg leneen peut-être mais seen kaas bépp mooy suñu gisatuñu seen bopp ci ngénte ci ceet ci xew mm-hmm. te après après la pand la pandémie la dama ragal ni lavage de conscience dafa war a mën a am mm-hmm. yenn gaspillage bi jël ko teg ko ci suuf daal mm-hmm. parce que après après deux mille vingt ça sera une crise catastrophique muy Sénégal muy France mu fu mu mën di doon ñun fii nu nekk nii quand je vous dis que même on a ouvert les on a ouvert tout bi doon ci comment dire resto yeeg tout cela même ñi doon bu fekkoon ni société bi daan jël vingt dix moo fay nekk parce que les gens ont toujours peur la crise commence mi tàmbali na di ñëw bu baax a baax a baax a baax a baax gaspillage yeeg tàggaate yeeg wax yu yëpp amatul solo xam lan moo am solo jéem a xool nag na ñuy taxawee ak ñun avantage bi ñu am Sénégal ak suuf su bari su ñu am Sénégal comment on peut faire pour retourner au champ dem liggéeyi liggéey yor suñu bopp liggéey dund dund ah, bay dundee def leneen xalaat leneen parce que ce qui est ce qui man Sénégal bi may jàngat ni fan yëpp nag dugguma parce que tàmbali naa na tàmbali naa liggéey tey sama jour off la rek mm-hmm. li ma jàngat ci Sénégal mooy que ni on parle plus qu'on travaille on parle plus mm-hmm. même des fois je me pose des question je me pose des questions si si on a de vrais de vrais journalistes ou bien on a de de vrais citoyens parce que nit ñi. li ñu gëm ba gëm ko mooy que ni fi nu bokk boo ko laalee yaa euh, dañ lay tàccu fi nu bokk boo ko laalu dañ lay xas. Sénégal toll nañ situation boo xam ne ger ger la total total amul benn prise de conscience waroon a taxaw man a toog xalaat ñun après lii la la lan la war a mën a def. ñu bind ci. nit ñi di ci yeete di ci waxtaan di ci jéem a xalaat suba lan lañ war a mën a apporter bu ñu jugee ci lii parce que après ça. Mm. ñun crise bi ñu nar a dugg du yem Sénégal rek de mais ça concerne l'Europe donc foofu noonu jóg waajal suñu bopp jéem ku nekk jéem a xoolaat naka ngay def sur le plan économique sur le plan social. Mm-hmm. naka nana mën a dimbalante ba romb lii mais du ay kaf du ay caaxaan. Mm-hmm. du ay ay ay ay du yëf. naqa sa xan la ça doit être une réalité loo xam ne dañ ko war a dund muy une réalité c'est bien beau mais mag magam jëm vingt huit ans quarante ans cinquante ans mm-hmm. qui se base seulement ci ay ngénte ay dëj ay xew ay mariage pour am ci dara mm. ça doit être aboli loolu dafa war a mën a jeex d'accord boobu dafa war a mën a jeex d'accord man foofu rek laa mën a waxee ngeen jéggal ma nag. jërëjëf jërëjëf Ibrahima ñu ngi koy jaajëfal bu baax c'est un fidèle du Sénégal 7 ñu koy jaajëfal ci ànd bi muy ànd ak Sénégal 7 saa su ne li mu wax am na solo euh, changement de paradigme bi hmm, euh, nouvelle ordre bi nga xam ne euh, moom la ñu war a am ci naka ci liggéey bay dundee bay dundee rawatina. Euh, ci jom ful ak fayda ah, waaye ci defar réew mi également euh, waxuma dara de soo yaa ngi <laughs> waaw waaw waxuma dara non man comprendre naa fu muy waxee mais il faut que moom aussi mu comprendre que mhm. gis nga société bi dafa am ñoo xamante ne ku nekk ak li ngay li ngay li ngay dundee ñi mhm. ngay def ba am looy dundee ñii xëy na mhm. ñi doon marche xëy na ñoom loolu la ñu am pour pour dund donc il faut aussi ñu nangul leen ko mais euh, mais dagguma bien que bien que aussi war nañ bàyyi xel ne fi mu toll nii réew waratuñ nekk ci réew moo xamante dafay tal caaxaan. foo hmm. ak ree ñoom li ñuy def. moom surtout gaspillage bi la wax. ñu jël Mamadou Diop s'il vous plaît. balaa ah, ñuy ñëwaat jël ko waaw allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. Mamadou ñu ngi lay nuyu. waaw mon frère waaw maa ngi lay ziar waay Diop Mamadou la Italie. d'accord Mamadou ñu ngi lay dalal ci Sénégal 7. di kontaan ci seen émission bi rek parce que yéen a ngi ñuy. Euh, baaxee xibaar yi am solo ñu ngi branché wu nañ daal. merci ça fait plaisir. et puis di nuyu seen émission seen seen pardon seen seen invité yi vraiment maa ngi leen di jaar bu baax. Mm-hmm. Mm. bëggoon na indi sama participation rek. d'accord ñu ngi lay teewlu. bon prima dama bëggoon a wax ci stratégie bi gouvernement bi teg est-ce que mënuñu ko changer sama xalaat. Mm-hmm. parce que moom dañu dafa mel ni dañu jël euh, coronavirus ba teg ko au premier plan. mais y' a d' autres yoo nga xamante ne ñi ngi rey nit ñi dañ ci wax. yaa ah, a d' autres maladies parce que vraiment coronavirus d' accord nañ ko jàppe ak ni ñu ko ñu mel ci en Europe bokk la ni ñu mel en Afrique. Mm-hmm. vraiment Europe moom daf fi ravagé ravagé mais en Afrique xëy na yàlla may nañu loo xam ne mm-hmm. alors que na mu sooroon a demee demee ñu donc nañu xool ñun ni ñu ko mën a gérer. Mm-hmm. bañ a fàtt yi nga xamante ne feebar yi nga xamante ne amoon na fi auparavant te ñu doon gaañ ñu bari. bon ñoo ñoo ci leen tenir en compte parce que ñu ci bari il paraît que mënatuñu dem hôpital dootuñu jël en dootuñu jël ak jël dootuñu leen jël en charge ndax coronavirus bi lañ jël politiser ko ba nga xamante ne vraiment ñoom ragal nañ sax def hôpital ci hôpital donc daal war nañ ci war nañ ko xoolaat tenir en maladie yëpp xam ne coronavirus bi maladie la comme yeneen maladie en Afrique amoon na yenn maladie yoo xam ne ñu ngi tëggu fi ay paludisme ay euh, nu mu tuddee euh, tuberculose ah yenn maladies yooyu ñu ngi rey. vraiment rougeole rougeole euh, waxuñ ci dara mais jël toujours coronavirus teg ko au premier mhm. pour man daal sama xalaat mooy waroon nañ ci jéem a changer stratégie parce que en Europe aussi léegi ñoom ñu ngi dépassé affaire yi ba ñu ngi xool seen avenir comme ñu ngi xool seen avenir ñu ngi def seen i réunion ñu ngi xool ni ngi relancé seen économie bi. Mhm. Ah, waxtaan na ñoom ba yéen ne léegi pandémie bi même bu ñëwaatee si que ñoom bu leen dara bettee ñoom ñoom ñi nga xamante ne ñun lu ñu bett lu ne bi ci jëlee njàngat dem dinañ dinañu bettal. Hmm. Botolo Jola jaar na ci yeneen ak yeneen jaar na mais jamais ñu jot ci njàngat. Hmm. bon beneen bi aussi ci affaire yu géwél yi ñu wax. Hmm. am na solo ah parce que c'est des gens que je respecte beaucoup. parce que am nañ solo ci ci société yi. mais aussi ñun bëgg naa ñu changer stratégie. xam ne ci côté culture bi mën nañ apporter Sénégal lu bari bari bari surtout ci tourisme bi. muy euh, ngéwél gi muy muy wude yeeg muy euh, tëgg yeeg ñoom ñëpp il faut que ñu jéem a améliorer ba ba jéem a euh, professionnaliser seen i seen seen seen culture bi. Mm-hmm. bu ñu bu ñu bu ñu topp rek te la la fi maa ngi bàyyi woon nañu jéem a xool duñ ko mën a ànd ak jamono. ba mm-hmm. nga xamante ne daa ñu mën a exporter suñu suñu suñu culture bi à l'extérieur ba tourisme fi ñëw quoi parce que réew yëpp noonu la ñuy ah. mais ngëwël du question rek dama war a toog rek sotti ma garaam bu rek ci sant maa bi ñi yooyu yooyu am na solo nag. Mhm. mais aussi nañu xool niñ ko euh, moderniser ba nga xam ne daañu ko mën a exporter ba bii bi ñoo ñëw am fi doole muy mhm. tëgg yi tëgg yi aussi ñoom it ñu transformé wu euh, améliorer seen i mbir ànd ak jamono ba nga xamante ne bu mbaaru tëgg rek la ñuy nekk noonu comme mbaaru tëgg mën nañ créer ay emploi ñi ci des aussi muy les wuude aussi la même chose. bu ñu toog rek na leen dina maam bàyyi loolu rek ci la ñuy tontu non non dañu amélioré wu ànd ak jamono. ba nga xamante ne du ñu mën a développé suñu culture ba nga xamante ne dina participer ci tourisme bi di ñëw fii ba nga xamante ne di ñëw vraiment. niñ Sénégal dañ ci seen bopp. ñoom dañoo war a participer ci développement bi. c'est ça loolu daal laa leen doon bëgg a ba ngeen baal na. c'est important jërëjëf euh, Ibra euh, Mamadou Mamadou Diop doon ñu woowee Italie c'est vraiment mën na reetaan loo waate mais c'est très important li mu wax parce que euh, nee na il faut que ñu ñu ñu innover Euh, euh, daal di faire parce que joxe na impact wala importance bi mën a am. ci mm. suñu culture bu ñu mën a exporté exporter. Mm. ci tourisme bi nga xam ne mën nañ ko promouvoir. Mm-hmm. en même temps donc c' est c' est très important donc loolu aussi dafay supposer benn communication pour le changement parce que mënoo gis sa maam yi di dund pendant des des des. des centenaires. ça peut pas être automatique. Euh, mais mais man man je veux revenir gis na sànq ki doon xam nga ko. su ki doon wax. Mhm. xam nga ñu incarné la kii la c' est Secka. Mhm. est un artiste. c' est Mbaye Sy Ndiaye muy tëggal yi mhm. ñoo c' est des artistes man j'aimerais plus ma dégg leen ñu valo ñu ne ñu interpeller le ministre de la culture ne leen ñun suñu dañu war a produire on doit nangam sàngam. mais pas dama war a yi beneen bi ki doon wax. mais est que dañoo pour wax. non non xaar xaar xaar non dañuy dañuy dañuy yëg dañuy déglu ma déglu ma ki doon wax léegi nii il travaille dans la presse il a son salaire mi ngi Dakar Actu il s'appelle Bourguewal et ça c'est moo il n'a pas besoin de ça man pour man pour man ah, ñoom ñoom noonu les artistes là leur contribution fii Sénégal c'est indéniable kenn mënu ko dindi. nañ fexe xool comment lañ koy yokkee comment lañ koy valoriser. Mhm. comment parce que on est à l'heure du numérique léegi mënatuñu def jàkkaarloo yi nii nii xew yi kii mais nañ xool nan lañu mën a créer benn chaîne YouTube seen mhm. fans yëpp di fa dem ñuy gagner quelque pour quoi pas nañ mhm. xool comment nan lañ mën a gagner xaalis à partir du numérique pour man foofu la ñu war a toll foofu la ñu war a aussi ki ngay wax ni. boo nee nit ñi dañuy xew nañ bàyyi ñu ne xew est-ce que nit ñi yow soo se tu es obligé nga am sa jabar euh, yàlla may ko nen tey nga nga nga xew tu ne pas obligé yooyu yëpp aussi mi ngi fi man pour man daal seen marché bi c'est bon c'est bien bu nekkoon. Mhm. ñu jël appel bi. yaa ngi yaa yaa ngi dal gars yi de. <laughs> salaamaaleykum. Mm. allo salaamaaleykum. waaye maaleykum salaam na de def. sant yàlla bu baax kooku Mor. waaye maa ngi leen ziar rapidement quoi. waaw yàlla yàlla nangu <laughs> ziar d' accord. maa maa ngi leen di sant di leen gërëm. Mhm. waaw tey moom uh, génne ngeen fi ay uh, ay système yu bien quoi ay xalaat yu bien ay mbóot. Mhm. ak ngeen wane uh, sunu xaritu mbokk géwél yi manifester. Mhm. et puis ñu dugg aussi maa ngi rafetlu seen kàddu li ñuy wax yëpp nice na quoi. mais c'est-à-dire que affaire tëgg sabar yi quoi même le samedi nii la. Hmm. yooyu yooyu dafa war a arrêter sax léegi quoi parce que gars yi mënuñu nag alors continuer parce que man am na ay copains géwél yu nga xamante ni ñii ay menuiserie métallique la ñu. waaw quand ñi ñi ingénieur la ñu. Hmm, hmm, comme comme ñi ma gis ñi wax ay xale la ñu. waaw dañoo war a jël nag comme déjà foofa nag ñu ngi def ay chantier mën na leen jël former leen. ñoo ngi wax waxu teer mën nañ leen dugal ci biir ay après nag du du du du leen empêcher. Euh, ñu ñu daal def ci euh, le week ñu def seen i activité dem ci ay xew wala yu demee noonu. Mm-hmm. mais kenn nag dafay dafay garder sa liggéey am sa métier ba pare nag di def li nga xamante ni say maam yi wala lañ fi bàyyi woon ba nga xamante ni feebar bu mel nii bu duggaatee Sénégal duñ fi nekk talal loxo moo gën ñu nekk naan maa ngi gërëm président maa ngi gërëm Aliou Ngou Ndiaye parce que xam nga gars yooyu c'est des bu ñu leen gërëmee léegi kenn ñu envoyé jox leen xaalis te loolu nag Sénégal di wéy loolu c'est loolu mënta ne loolu il faut que mu ah, loolu arrêté te gis nga oustaz démb am na wax bu am solo bu nga xamante ni fu ñu bàyyi ci xel mooy xoolal mooy nañ nañ ci boole daara yi xoolal man ci daara ji nekkoon ci kër sëñ Mbacke Madina ma toog ci daara ji ci noonu parce que dama à chaque fois dama daan daw léegi sëñ Mbacke mu xoolee ne man euh, dama daan daw pour tànk di dem ak ñëw ñu may ñu indi wala dafa waxtaan ak sama papa ñu dugal ah, ma ma nekk ci bâtiment di liggéey ba tey maa ngi di donc ñu di toog di wax ak yéen xoolal euh, yéen ñi nekk foofu tey jii comme par exemple nii pour pour dëggal li oustaz wax rek ci affaire daara yi moo tax sëriñ daara yi yenn sëriñ daara yi laa wax ñi nga xam dañ ko jël teg ko ci yoon ñoom daay waxal xam la ñuy wax yi nga xam ne dafa jiital yàlla waaw ñun foofu la ñuy waxee tout le temps foofu la ñuy waxee ki jiital yàlla la ñuy waxal mhm. léegi euh, li li oustaz wax il faut ngeen dëggal ko xoolal ma ci daara ji laa nekk xoolal yéen ñu toog foofu léegi xoolal bu seen bunt bu ngeen réeré seen caabi yéen yéen yéen ñett ñi toog foofu ci plateau bi mhm. ma wax leen rek bu ngeen réeré ku ngeen di woo menuisier bi pour mu laaj bunt bi. menuisier bi. waaw mu xam nga yéen seen waaw menuisier bi bi ngeen woow mu dajji seen bunt yéen ñu ngeen bu demee seen caat. Mhm. xoolal menuisier day ñëw daj bunt bi. te xoolal ma leen nii seen kër ngeen nekk noonu bunt bi day ñëw daa dajji ko ba pare dem yoonam. Mhm. da koy da koy da koy rafistole dem yoon te bunt bi fi ngeen moo tax ngeen bu bu bu dee euh, bu dee lu may wax nii am na rek bu amul ngeen ne amul. xoolal mhm. menuisier bi day ñëw ñab ñabal dem yoonam. te xoolal bunt bi ah cinq minutes moo koy ubbi. dajji waru ci moo tax il faut qu'il faut ñu dugg ci bâtiment wax ak gars yi moo tax il faut gars yi dem jàngi métier. Mm-hmm. te yéen bu ngeen ñëwee seen bunt yi dañ ko ñëw dajji ko te dajji boo ci warul da nga ñëw cinq minutes mu ubbeeku moo tax il faut yéen bu ñu ñëwee Sénégal. il faut mm-hmm. ngeen invité ñu sur plateau ñu leeral lu bëree bëri bëri. d' accord <laughs> ngeen gën a xam-xam waaw leeral lu bëree bëri il faut ñu ñëw ñëw seen plateau. wax ak gars yi. Uh-huh. affaire sabar yu guddi yooyu moo fi jeex su nga ah, góor xuma woo ngeen ko keroog aussi. Uh-huh. il faut mu ñëw aussi wax ak suñu mbokku chauffeur yi uh-huh. parce que affaire boobu aussi duñ ko mu jàll saxaar si bari na gars yi amuñu permis loolu a d' accord xam naa dinañ ci def benn émission spéciale voilà maa ngi a baax mais nag affaire daara yi. il faut euh, allah incha allah incha allah jërëjëf euh, Mor Mor euh, moom mu ngi doon woowee ci France. Mm. donc wax na ko wàllu mm. daara yeeg yooyu mais da ngeen may baal rek ñu dem jël invité bi. Mm-hmm. jël invité bi sànq ñu ngi doon wax ci wàllu. culture beeg nit ci griot yi mën a contribuer. Mm-hmm. dañu dem justement ak. professeur Sanoussi mu wax ñu euh, dans quelle mesure la culture mën a contribuer justement euh, ci lutte contre Covid 19 bi ñu dem teewlu ko daal di ñëwaat. culture ci ñoom mille milliards mille milliards bu ñu ko ci defoon par jour doyul mais xëy na loolu c'est une conception assez philosophique ou assez intellectuelle mais xam nga léegi bu ñuy wax le monde de la culture mais la culture elle est devenue une industrie la culture elle est devenue le plus grand business du monde Souleymane Bachir Diagne dafay wax mu ne on a économiquement tort parce que on a culturellement tort c'est pas le contraire je vous donne un exemple regardez aujourd'hui la publicité Regardez aujourd'hui les problèmes américains. Si l'Amérique domine le monde, c'est parce que le monde consomme la culture américaine. Donc aujourd'hui, la culture participe à l'économie. Ba pare beneen bi pour parler des agents de la culture. Man un respect presque religieux pour les hommes de théâtre. Et je voudrais vraiment en profiter ci seen antenne pour demander au ministre de la culture de rectifier un tort qu'on a fait à un homme qui mériterait d'être connu par tous les Sénégalais et qu'aujourd'hui la jeunesse ne connaît pas muy Cheikh Tidiane Diop. Cheikh Tidiane Diop bi def daaray Kocc ak jamonoy tey ak ñoom Tafa ca jamono. peuple bu nekk dafay am miroiram dafa am ñoo xam ne dañ leen di déglu am ñoo xam ne duñ leen déglu man si j'étais le ministre de la culture bi Covid bi ñëwee am na yoo xam ne nii. du ma ne du may wax ministre de la santé moo koy wax parce que on est dans un état quand même il y des institutions et des organismes on comprend un peu comment fonctionne un état mais am na ñoo xam ne boo leen mobiliser woon dans une structure officielle ku mel ni Saner ku mel ni Kouthia ku mel ni en tout cas homme de culture yi nga xam ne nii déglu nañ leen chaque soir ñuy toog di wax ak Sénégalais yi dinañ fa jàll. et quand je parle de ça aussi pour vous dire la culture. gis nga li mooy on n'a pas les intellectuels man personnellement j'ai vu des philosophes qui ont écrit des choses extraordinaires sur le coronavirus qui n'ont rien à voir avec ce débat actuel quotidien qui est fait de cas qui est fait de morts qui est de trucs mais am na ci ay côté yoo xam ne les philosophes loo analysé suñ leen mayoon ay turbine officielle yëkkati leen pas les philosophes seulement les intellectuels de manière générale les journalistes ñuy wax nit ñi dinañ gën a am beneen conception ci non seulement avant le Covid à l'ère du Covid mais après le Covid mais malheureusement on est dans un état boo xam ne nu ñu ko waxee léegi l'officiel et le sensationnel sont en train de détruire cette planète parce que nit ñi commencé nañoo jooy gis nga Sénégal du problème mu Macky Sall c'est un problème de système tàmmuñu jubal ñun tàmmuñu jubal bi àddina commencé ba tey boo jëlee couverture maladie universelle xawma bourse familiale tout le temps da ngay dégg ay lëjal parce que ni ko waa Ndoumbelane di waxee lëjal ak lijjanti la bu ñuy di lijjanti ñee ngi lëjal man je suis prêt à mettre ma mais au feu que la politique la religion ay affaire de parti ay affaire de tarixa vont entrer en jeu am na ñoo xam ne nii danañ leen jox te waruñu la leen jox parce que ci tarixa lañ bokk wala ci parti lañ bokk am na ñoo xam ne ñoom ñoo kon yeeyoo mais duñ leen ko mos a jox parce que parce que parce que donc loolu je di dit à beaucoup de personne ci commencement bi xoolal déjà ceeb bi un pourquoi ñu ñuy jox ceeb pourquoi ñu ñuy jox ceeb on s'est posé cette question c'est parce que derrière ceeb bi il y a quelque chose un de deux si c'est loo wax na ko fii ceeb bi non c'est triste ce qui se passe dans ce pays au moment où sénégalais yaa ngi toog amuñu xaalis tey am na ñoo xam ne ñu ngi nekkoon waalo am na ñoo xam ne ñu ngi nekk Casamance yore ay réserve de ceeb yoo xam ne ñu ngi bëgg a nëb bu fi état ba demoon jël trois millions 4 millions jox ko non seulement dina am ceeb mais dina xittali Sénégal Sénégal ci benn moment boo xam ne mi ngi soxla xaalis mais dañu dem jëndi ko indien et ci waxi Cissé Lo c'était un mauvais riz un de deux ñu jël ko jox ko naar boo xam ne waruñ ko ko jox troisièmement bañ koy transporter ñu jël bàyyi transporteurs yi dem jox ko Diop si koo xam ne ni c'est un député et il n'est pas un transporteur de riz c'est un transporteur d'ordures mais bu ko jëndeewul fañ ko war a jëndee joxuñ ko koñ ko war a jox ka ko transporter war ko transporter à Pikine les gens m'écrivent pour me dire qu'on est une famille on est venu nous donner benn saako ceeb cinq litres de sucre cinq paquets de sucre cinq litres d'huile pour trois mois du jaar fa mu war a jaar parce que justement je le dis et je le revendique je suis sénégalais vous êtes sénégalais et je le dis ici nekkuma France ñun nekkuñ peuple boo xam ne dañoo tàmm jubal peuple lu luubal la peuple lu teg dil la peuple lu garaawul la peuple lu lijjanti la loolu moo fi. voilà peuple luubal la peuple teg dil la peuple garaawul la peuple daf lu la neex la. li mu wax mel ni moo am ci société bi de. non il a en partie raison parce que en fait foofu dañ ko il faut ñu leeral que dañ ko interpeller mhm. euh, ci fonds yi nga xamante ne moom la état bi dégagé pour appuyer les acteurs culturels. parce que mhm. gis nañ ne Covid bi aussi. Euh, impacté na leen aussi mhm. mais moom boo amu ci amu ci njort bu rafet daal par rapport ak transparence bi war a am ci séddale bi mhm. loolu moo tax mu wax loolu euh, mais euh, acteurs culturel yi aussi comme ni ñu ko waxee sànq rek aussi ñoom tamit bu ñu nee culture rek dafa yaatu aussi du tëggkatu sabar yeeg yooyu rek waaw bindkat yi éditeurs yi ñoom ñëpp ci la ñu bokk mhm. li ñuy ñaan rek mooy fond bi mu jaar yoon moom amu ci njort bu rafet pour plusieurs raisons boo ko yu ñu gis d'ailleurs waaw waaw boo ko xoolee ba ci biir aussi luy valable la quoi parce que boo xoolee ñu doxalee parfois ci ceeb bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu fi jaar da xool da nga naan est-ce sax vraiment ndimbal bi jaroon na ñu koy génne parce que bu fekkente ne du egg ci ñi ko moom je pense que jaruloon ñu koy ñu koy génne. d'accord alors Sissoko wax na ci euh, benn nouvelle conception boo xam ne war nañu ko am par rapport ak ni ñuy doxalee ci wàllu culture ci ci fànn yëpp ndax mm-hmm. lépp. daanaka ay ay ay lu nekk daal lañ ci gis yoo xam ne. bokkul mm. ak jubal euh, ñu ñaan la rek nga ñu jël ki ci ligne bi. effectivement euh, ñu ñaan ko mu tënk ki ci ligne bi salaamaaleykum. salaamaaleykum. aleykum salaam. waaw waaw man maa ngi ñëwaat Ibrahima dama déglu benn interview bu waa ji def rek. Euh, ma bëggoon ci benn jàngat bu ndaw waaye jërë ngeen jëf man li ma comprendre mooy que nii ñun ñëpp seen ay Sénégalais lañ dëgg la. Mhm. yéen yéen yàgg ngeen foofu yéen a ngi ci université yi jàng ngeen ay journaliste ngeen on parle trop des intellectuels au Sénégal man dama bëgg noonu laaj ndax Sénégal yéen laa koy laaj pour ngeen gëstuma ma ci laaj tam ndax am na nañu plateforme intellectuelle boo xam ne day toog def des propositions. Mhm. xam nga li gën a yomb ci àdduna mooy faire analyse après les faits <laughs> après fait. ñu Sénégal loolu loolu lañu loolu loolu lañu aay ñun duñu anticiper. Mhm. man dama bëggoon wax benn plateforme boo xam ne rek non ce qu'on ce qu'on appelle les intellectuels sénégalais qui sont réellement des intellectuels je mets entre guillemets. Mhm. yan proposition préventive lañ def pour permettre ñoom ñi nga xam ne yàlla ndax problème bu amee dëggantaan ci réew sont les intellectuels les universitaires ñu mag ñi noo war njëkk génn ñoom lañu war a njëkk laaj sax mhm. wax. pour prévenir pour pour teg ay ay propositions. Hmm. mais Sénégal ce que je constate entre nous ñun ñëpp ay Sénégalais la hmm. on est trop partisan on est trop partisan hmm. dañuy far même sur le plan politique sur le plan tarixa sur le même sant sax dañuy far sant donc depuis lors ce sont les intellectuels qui nous dirigent moi je préfère wala wala mën na continuer wala allez rapidement rek voilà man man je préfère. Mhm. ah nit ki nga xam ne dafa am ngor te du intellectuel que intellectuel bi nga xam ne il ne que li nga xam ne moom la mën a jëriñoo ñun depuis soixante ay intellectuel mhm. la ñu yor. depuis mille neuf cent soixante ay intellectuel la ñu yor depuis mille mhm. neuf cent soixante. demulu fenn. ñi nga xam ni ñi nga xam ni que ni noo gën a produire ci Sénégal noo gën a produire ci Sénégal dafa koo xam ne dañ koo dañ koo bannirul Sénégal mooy benn. Euh, njariñ loo fekke ñun dañ koy wax te c'est dangereux ñun loolu njëkk loolu lu njëkk a jàngal njariñ loo fekke njariñ kenn du ko fekkee njariñ da koy def pour ëllëg say doom tout à Sénégal ñi am alal ñëpp ñëpp coow lii ngi dégg fan yëpp suuf la ak bâtiment koo ci gis bâtiment lay tabax luyee ko moom rek moo ciy jariñu hmm. société amul bu société primaire amul dara amul boo xam ne ñu mën nañ cee jàppandiku Sénégal du dem ñi nga xam ne alal ji ñu yor dañ ko dañ ko dañ ko féetale seen bopp mm-hmm. intellectuel yi bindaluñu loo xam ne ñun ma dañ ñuy jariñ intellectuel yi tamit nan génn nan def nan nan def nan def nan def forum toog mm-hmm. waxtaan ci réew mi ba ba jénn far fii wala nu far faa parce que na Sénégal li ko gën a tardeel mooy mbirum far ak mbirum xamoon naa ko ak mbirum waxoon naa ko wa waxoon naa ko il analyse toujours après les faits. dañuy analyser avant les faits moo gën après les faits ngir jéggal suma baax a baax. jërëjëf merci beaucoup Ibrahima euh, c'est important li mu wax euh, ah Socé nee na plateforme intellectuelle yi bu ñu am. Euh, ani ban plateforme intellectuelle je pense que à travers les think tank mais ba tey think tank yi aussi. am na am na sax am na am na ay plateformes intellectuelles ah. waa CIS e cercle des intellects du Sénégal ñoom professeur Malick Ndiaye consort maintenant ndax ñu ngi def liggéey bi ñu war a def en terme de proposition aussi là mm-hmm. moom je ne pense pas que mënuma cee sori parce que aussi dugguma ci seen liggéey carrément mm-hmm. peut-être ñu ngi koy def di ko soumettre parce que yooyu aussi souvent c'est pas c'est pas c'est rendu public mm-hmm. mais li mu wax aussi c'est c'est très important war nañu moytu aussi di analyser rek am capacité d'anticipation ci yenn yi pour que vraiment mu mën a mu mën a jariñ société bi daal d'accord yow sànq Mamadou dafa lu am solo lu mu wax nee na actuellement Europe ñu ngi génn ci mbir mi mais ñu ngi xool seen avenir nan lañ ciy xalaatee ba bu fekkoon ne sax Covid 19 bi ñëwaat na pour ñëwaat ak doole ñoom xam nañ naka la ñuy fexe ba gérer ko loolu aussi c'est c'est important mooy leçon yi nga xam ne war nañ ko tirer ci mbir yi te leer na ma ne bu fekkoon ne Covid bi jeex na fi Sénégal nañ doon doxalee noon la ñuy doxalaatee lii leçon yi indi ci Covid. Mm-hmm. peut-être amaana duñ ko appliquer. Euh, euh, mm. euh, kii si soxo mais mais xam nga. Mm. ñoom ñu ngi ils sont dans la planification. Mhm. fu mu toll nii ñu ngi planifier seen seen économie fan la mais nous on planifie rien. Mhm. bi gën a gàtt. l'échec bi l'échec gën a am bu mujj rek mooy la reprise des des des cours. Mhm. pour les élèves de euh, en classe d'examen. mais l'État euh, gérer euh, gouverner c'est quoi la ñuy wax. prévoir l'État lan la prévoir foofu. prévoir c'est c'est c'est planifier. Mhm. lan la planifier foofu donc si kooku noonu ku mënul organiser loolu bu la nee dinaa planifier pour le pour la reprise de l'économie da ngay xam ni daf lay neexal la. est-ce que duñ ñu ñaaj nañu gën gis nga gis nga li nga Mamadou Diop bu génnee dafa wax benn baat. Uh-huh. dafa ne Sénégal far far far bonul la. Uh-huh. far non bonul lu baax la. Uh-huh. par parloo ma bon. xam nga luy par parloo. mooy nekk dans les détails. sama sama askan a gën sa askan sama sëriñ gën gën sa sëriñ sama parti politique a gën sa parti mm, politique mm. loolu moo bon mais far nit day am péete mm-hmm. nit day am péete sëriñ Mansour da doon wax ni euh, ragal péete day xañu wërsëg nit day am péete mm-hmm. ba pare nga nga nga nga nga nga ci sa péete waaye nga bañ a yàq ñeneen ñi ñun suñu problème bu mooy on est dans tout le temps ci affaire diw bokkuñu fii diw bokku et jamais dans l'esprit général beneen bi aussi ces mm-hmm. ces intellectuels là ay mm-hmm. professeur Malick Ndiaye nangam mm-hmm. sangam mais ñun ils sont aériens trop philosophique ils sont xoola ils sont aériens il faut le dire c'est quoi intellectuel non il faut qu'on se objectif il faut qu'on se dise c'est quoi intellectuel Uh -huh. Si c'est réfléchir pour les oiseaux, c'est pourquoi pourquoi uh-huh. il faut qu'on qu'on qu il faut ñu dellu ñu xam ni ñun on est avant tout des on doit être des humanistes on doit réfléchir pour les hommes pour mmh. les humains d'abord ñu xool nan la ñuy pour l'avenir aussi nan la ñuy replacer mm-hmm. l'homme cet homme là dans notre avenir c'est ça mais di nekk fi di réfléchir di wax ay plan yoo xaman yow sax xamoon <laughs> je pense que je pense que Jules mu ñu koy wax euh, temps bi ñu amee woon ñëpp euh, jeex na mm. dañuy leen di mm. bàyyi rapidement mm. le dernier mot balaa ñuy joxaat rendez-vous Euh, suñu gars yi bu subaa ci beneen euh, boulevard du net dernier mot rapidement. waaw dernier mot bi bon di remercier gars yi ñu doon seetaan rek di mm-hmm. am yaakaar ne euh, ils sont par rapport ak numéro numéro tay bi mm-hmm. di leen ñaanal aussi demee incha allah ñu tasewaat ak jàmm ci beneen numéro boulevard du net. Mouhamed Aïcha. waaw di di di di remercier waat ñëpp ñi ma bokkal plateau bi Socé Abdou Khadre di leen mm-hmm. remercier waat bu baax ci di remercier ñi nga xamante ne ñoo ñuy suivre depuis di leen remercier di leen euh, remercier waat bu baax balaa maa daaneel rek ngeen may ma ma souhaiter joyeux anniversaire sama sëriñ sëriñ Moustapha Sy mm-hmm. euh, bu Muxtafina bu bu Moustachidine wala Moustachida di ko souhaiter joyeux anniversaire di ka ñaanal mu gudd fan dund lu weesu lu wéy juróom dundoon mm-hmm. d'accord jaajëf ñu ñaanal ko ko moom itam ñaanal ko ñi nga xam ne ñëpp euh, dañuy fêter seen anniversaire tey di leen ñaanal gudd fan ñi nga xam ne aussi ñoo am ay xalaat nekk bitim réew nekk ci biir réew mi yàlla gën a ñoral seen i xalaat euh, bu ko defee rek euh, lépp réew mi daal di koy jariñoo waaye avenir les générations futures daal di koy jariñoo ci transparence waaye ci njëriñ goo xam ne ñëpp dinañ ci bénéficier donc ñu jaajëfal leen bu baax ci teewlu bi ngeen ñu teew lu tey Ibrahima ñi nga xam ne ñoo woote Ibrahima ca France Diop ca Italie ak Mor mi nga xam ne woowee nañu ci France Mor moom il a des idées révolutionnaires des idées qui change qui change le pays ñu ngi ko ciy jaajëfal bu baax di la di di ko rafetlu bu baax nu serons toujours ouverts pour déglu say xalaat c'est important jarul xeeb euh, Mamadou Diop comme comme Ibrahima comme ñeneen ñi nga xam ne am nañu yéene woote di leen woote di partager seen xalaat ñun ñi fi nekk mën nañ joxe suñu xalaat joxe suñu position jox leen ay information mais du doy parce que ci euh, niveau doomu aadama lay yem parce que dafay matadi naturellement donc bu ñu boolee xalaat yu bëri rek amaana dinañ ci am loo xam ne lu am solo la donc ñu jaajëfal leen bu baax ñu ñu doon suivre ci internet bi euh, ci YouTube ak ci Facebook ak ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre askanu Sénégal ak waa diaspora bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax Sénégal 7 di leen remercier ci teewlu bi ngeen di teewlu saa su ne leen jox dig daje bu suba ci beneen euh, boulevard du net ak yeneen information ñeel euh, Covid 19 yu ak yeneen euh, ci ay xibaar yoo xam ne mën na leen intéressé jërë ngeen jëf ñu ngi leen di ñaanal yendu jàmm di leen jox di di daje bu suba incha allah merci beaucoup.